fasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki mbokki yàlla jalla wa ala mbokki Zik FM 92 eh, point noo ngi leen di nuyu di ñaan borom bi jalla wa ala mboolem xeetu jaamu yàlla yoo xam ne ñu ngi koy jaamu yàlla nañ ko yàlla nungul yaa xam jaamu yàlla la boo xam ne dañ koy tudd ci aw làmmañ wala muy jaamu yàlla bu ñuy fas ci ab xol di ko ca denc wala muy jaamu yàlla boo xam ne dañ koy jëlee ci ay dañ koy jëfe ci ay cër jaamu yàlla yëpp yàlla nañ ko borom bi jalla waala boole nungul njuumte ak rëcc rëcc yi nga xam ne rëcc nañ ko yàlla nañ ko jéggal sax waaye mu suppel ñu ko defal ñu ko ay xasanaat def ko ci sunu uh, balaasu uh, yëw uh, ci noonu yi ñu ngi nuyu delluwaat ci nuyoo bi di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ toogal mooy Cheikh Moussa Wade ak sëriñ bu tedd bi ñu koy nuyu. Eh, sëriñ Maxtaar eh, Mbay xam naa Mbayeen ak Waddeen moom toogee toogandee moom ma ngi noonu góor yàlla eh, di jëlaat nuyu bi jox ko imaam Xuseynu Ndour moom tamit mu nuyu mboolem gox yi Thiès gi yëpp di nuyu Cheikh Ousmane aywa génnaat ci penc mi di nuyu mboolem julliti kër gi yëpp àddina bi yëpp laa bëgg a wax di nuyu alxulafa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi. Eh, Moussa dal ci teunk deeg di wax ni ba ngay door ci treize heures et demi bu yaatu matale bu mu nuyo won mm-hmm. ñu jël nañ ko jaar fa nga jaarun yépp joxaat ko ñom ñëpp di wax sunu gan ñu bàyyi la nga nuyoo salaamaaleykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah barke seigne Bassirou kan barke seigne Bassirou kan barke seigne Bassirou kan doylo seigne Bassirou kan yaakar seigne Bassirou kan bëgg sëñ Bassirou Kane asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit mbokk dëkkandoo yi auditeurs yi auditrices yi jamono ji képp koo xamante ne yaa ngi toog si gox yi fasantikoo yi di déglu li nga xamante ne mooy Zik FM 92 point si suñu làmmiñ bu xeebu bi ñu ngi yëkkati suñuy kàddu waaye di ko darajee Seexal Basir di nuyu ñëpp rawati nag fi ma bàyyi ko di taatin bambara di nuyu sama waajur bu jigéen ba Faatumata Si di ñaana suñu waajur bu góor ba yàlla yokk leeram yërëm ko xaree ko àjjana gën a kawe di nuyu samay soxna paul bu rafet soxna Kani Sow ak serigne bu rafet soxna Mariama Diouf waye di nuyu nak ñi nga xamantene ñoy ñooy samay naataango yi di samay serigne euh, serigne Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit sang bu tedd gi xamantene mom ne jox parole sëñ Mouhamed si Khalil Seck waa Habib Seck sekken bi sant bi gën fuufa ki nga xamante ne moom laa dedal heureusement que du lu ñuy lekk moo fi tege waaye nag ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom ni nga xamante ne moo yore fasaa mu dimbale ñu ba lépp loo xamante ne dañ ko fi yëkkati mu nekk loo xamante ne ngërëmal yàlla da ciy nekk mu nekk loo xamante ne yiwu yàlla da ciy nekk mu nekk laa xamante ne ndëng-ndëng ak juumteb doomu aadama wàññeeku ci ba duñ ci wax lu fi xeebe wala fi loxo demee gémmiñ lépp lu fi wax yàlla fiy njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, macha allah cheikh bi sëñ Mbaye xam naa sëñ Wadeen bi nga dendal moom ma ngi noonu comme ni nga ko waxee euh, ginnaaw loolu xam naa dañuy dem ci euh, directement ci liggéey bi rek ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh Moussa ñu jox ko mu tamit mu nuyoo Cheikh Moussa Kalioum moom mooy kilifa gi ñu jox ko mu nuyu Wadeen bi incha allah. asalaamaaleykum ñu ziyaar la ndokkeel la ci émission bu am solo bii nga xamante ni mooy ëttu daara yi fata euh, émission bii nga xamante mooy ëttu mag ñi ëttu mag mhm. eh, yàlla dogal na nga xamante ni ñu indi ko ci biir ëttu daara yi ëttu mag ñi ñu indi ko ci biir ëttu daara yi ëttu mhm. nga xamante ni ñu nuyu bu baax eh, ki ñu feggool di Serigne eh, Muxtaar Mbay góor yàlla nga xamante ni sant bee ko yàq rek na sant sëñ Maxtaar Wade bu góor yàlla. bi mhm. xam nga xam nga xam nga tur dafa am solo euh, sëñ Mouhamed Habib. Mhm. tur dafa am solo. Mhm. bi may nekk sëñ Maxtaar Mbay góor yàlla man ko góor yàlla gi fu mu jógee man ma sëriñ Bachir kan moo ma ko tuddee. man ko kon de day sax. ndax moom Serigne Bachir kan alquran ba mu ngi jógee Serigne Abdou Ahad Mbacke. Serigne Touba Serigne Abdou Ahad Mbacke. kon gis nga fa tabarakallah esan wa demul del si ñu nuyu ko ay nuyu bu baax fa mu jógee fa tabarakallah nuyu wa daru kan gi yépp teg ko ci loxo sëriñ basiru kan sahibul quran waaye nuyu bu baax eh, wa mbaaleen nga teg ko ci loxo sëriñ cheikh kan momit ziar ko bu baax ñaan ko suñu ma di way juram ñaan ko suñu nuyu khalifa bi sëriñ mor kan nuyu sëriñ mara kan momit ci ci ties nuyu sëriñ khadim kan ñun ñep ñaanal leen suñu borom yalla yalla defal leen wa daara ja ma ngi leen ziar bu baax soxna eh, fa tabarakallah man sey ñun medun Eh, ñun sëñ lamp fa tabaraka sëñ nga xam ñu ngi ko doon xaar moom it ñu ziar ko ko si liggéey bi kon eh, sëñ bi loolu mooy nuyoo mm. kàddu yi waaw ah, kay barakallah eh, kon Cheikh Muxtaar dañuy def ci liggéey mubashara xam naa sax li nga xam ne mooy reen bi mooy sëñ Basiru Kan waaye nag képp ku tudd ab jëmm da nga tudd aw askan man ci wan askan la bokk eh, di nga ko tudd eh, képp ku tudd ay may ay nit maanaam mayuk ak nit wala ay liggéeyam di nga wax lii fan la ko donne wala fan la ko raasaatoo wala fan la ko faggo kon loolu moo tax nañu war a déparé eh, ci laaj ana kan mooy sëñ Basiru kan waaye ay waajuram waaye tamit ak i maamam bëgg nañ nga taxaw ci ci maam yi seenu liggéey ak seen euh, taxawaay ak yooyu surtout rawaat naag sunu euh, maam Alioune kan nga xam ne maa ngi wax léegi Moussa ko am na sama benn mag Aline Badara Aline ñu koy wax Bada kan mu ngi dëkk ci Mérina Gueye ñu ngi ko duppee Aline euh, Kane moom kon xam naa ni laaj yaa ngi noonu wala laaj baa ngi noonu incha allah soobee borom bi jël waala. jërëjëf sëñ Mouhamed laaj nga lu am solo laaj nga lu neex tontu waaye laaj nga lu jafe tontu. Mm-hmm. ndax alhamdulilah dañuy waxtaane ki nga xamante ne góor yàlla la góor yàlla nag bu ñu koy waxtaanee wax dëgg yàlla dafay am loo xamante ne boo ànd ak ndimbalu yàlla dina xaw a yéeme ndax waxtaanee askan yooyu nga wax maanaam day mel ni rek uh, poso bu ñu samp ci géej maanaam lu mu ci yëkkati rek loolu lañ ci xam dañuy àbb nag kaddu maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu ko laajee kan mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul daf leen na joxoñ ab guy si ndax ba tafu ca mu ne ko lee lan la ñu ne ko guy la ñu ne ko lan noo ci tafu ñu ne ko si ndax mu ne ko si ndax bi lu mu tafu actuellement si guy gi loolu la ci xam ñu ne ko waaw mu ne ko loolu laa xam si sëñ bi kon li des si guy gi yëpp ump na ma kon tamit askan boobu noonu noonu lañu mel du caagi ñàkk leen a xam waaye seen mbóot dafa bare ñu muñ ñu tudd sëñ Bassirou kan nag te déparé ñu si li nga xamante ne mooy njaw waxtaan nga sëñ Bassirou kan xob la maanaam dañuy bëgg a tàmbale si reen bi soog a ñëw si garab gi soog a ñëw si xob bi reen gi mooy kan mooy Seydina Alioune Kane jàmbaaru maam Cheikh Ibrahima Fall jooju Seydina Aliou Kane mi nga xamante ne maanaam képp kuy góor yàlla si réew mi maanaam dégg nga turam wala xam nga ko Seydina Aliou Kane mooy jàmbar ji nga xamante ne maanaam képp ku moo mos a jaflanteel maanaam nga ko nga ko xel Seydina Aliou Kane mu nekk koo xamante ne benn góor yàlla buy xaw a yéemee ma wax la nag ñu bëri sax dañuy jéem dañ koy jéem a dañuy koy jéem a jaawaatle ak taawam bu góor si karaama yi ak xar baax yi nga xamante ne dañ ko doon def mais Seydina Aliou Kane daal benn góor yàlla benn doomu soxna la boo xamante ne ginnaaw bi mu demee ba am fukki at lu teg maanaam dégmal yàlla suñu borom xemmem téefam nekk si liggéeyal yàlla suñu borom maanaam nag cosaan ga nag mu nga ca demet du ca mbaaleen bay mu nga ca demet hmm. demet nag boo ko déggee maanaam wala yu yi ngay dégg Sénégal yëpp seen base demet la muy Serigne Touba Khadim Rasoul muy El Hadj Malick mu maam di maanaam kilifa yi diine yi Sénégal yëpp maanaam seen baas dimet la dimet mooy seen cosaan foofu doon mu ngi ca Fuuta waaye nag si diggante dimet si si kii El eh, Hadj Demba mu wàcce ko si Seydina Alioune waaye comme Seydina Alioune Kane lañu la xam-xam bi ci fa ubbeekoo fa lañ ko xame ñu yemagum ci Seydina Alioune mu nekk jàmbaar joo xamante ne maanaam bu mu dégmalee boppam natt mu mu mu am si koo xamante ne xeej na si ginnaawam muy maam Cheikh Ibrahima Fall muy jàmbaaru Serigne Touba jooju mu dëggmal Cheikh Ibrahima Fall waaye bu mu demee ba si maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam ngir gën koo oyofal liggéey bi ngir gën koo gaawal liggéey bi maanaam maam Cheikh Ibrahima Fall da koo yebalaat feneen fan la ko yebalaat mu ngi ko yebal daaru jax njax boo ko xamul mu ngi diggante bayaax ak cinquante maanaam boo boo bu nekkee Thiès nga jógee nga jaare Kayar boo boo boo jaare cinquante mel ni ku jëm Kayar bayax nga ciy teg boo ginnaaw bi nga passé dëkk dëkkaan yi bayax nga ciy teg boo ñëwee ba bayax di nuyu ngóor sëñ ah. boo ñëwee ba bayax da ngay jàdd sa loxo da ngay bàyyi yoon Kayar bi jàdd loxo ndey joor hmm. mel ni ku jëm si nootoo guy jamaa hmm. maanaam dëkk bi ngay njëkk jot à sa droite sa loxo ndeyjoor joor foofay njax waaye tarbiya bu mu fa def tarbiya bu mag bu fa def ak kéemtaan bu mu fa def si si si joxe adiyam bu njëkk si si si si këll bi ak si juróom-ñaari dërëm bi nga xamante ne maanaam bu mu ko tegee si loxo sëriñam sëriñam yëg na ni kat tey bagaan teg nañ ko si kawam ñu ko Alioune kat sa këll gi diis na Alioune kat sa bagaan gi diis na kon foofu noonu ñu ngi commencé woon ay xar ay ay xar baaxam maanaam foofu la ko toore dooree waaye bi sëñ Alioune kat xamee ne ndongo bi ñu ko jox kat maanaam ku mat ndongo la ku mat li muy def la maanaam da koo teel a yeewi teel koo ñaanal maanaam yebalaat jébbalaat ko ki nga xamante ne ne si benn rek si si karaama yu mu def moom moo moom moo newoon dogu woon ne bu nekkee liggéeyal bu mu liggéeyal rasulillahi liggéey bu mu liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey bu mu liggéeyal Sëñ Tuubaa dëgg la maanaam bi nga xamante ne moom la soxoon muy socc bu wow koŋ moom la jël samp ne na fi nekk ëtt tey ji boo duggee mbaaleen Dakar gaa nga foofu noonu ki gën a féetew si Dakar gi si bu ngeen a féetewoo muy nekk makkaanu Seydina Assane Kane maanaam nag Seydina Aliou Kane boobu noonu mooy maam ki ñuy waxtaanee waaye Seydina Aliou Kane nag kan mooy leeram walla kenn si leeram ki ñuy wax Serigne Cheikh Kane Alaaji Cheikh Kane jàmbaar ju dal jooju jàmbaar ju ne dégg jàmbaar ju way jàmbaar ju sell Jambal ju yow jàmbaar jo xamantene Yemi yeme yeme banj banj bañ bañ bañ banj banj bañ bañ bañ yoonu murit waaye loo bañ bañ nit ku baax su ko gisee bëgg ko mu nekk soppalu lool kooku moy Serigne Cheikh Kane Serigne Cheikh Kane googu nag moo ñuy jox jàmbaar joju naru yaay xaddi sen bobu di serigne basirou kan serigne basirou kan mu nekk ndaw way ndaw jo xamantene ndaw ju mag la serigne basirou kan mu borom dal sëñ Bassirou Kane mi nga xamante ne kàddoom bu njëkk bi ma gën a force kàddoom mm-hmm. mooy bëgguma ko baax mm-hmm. waaye damaa bëgg bëgguma ko baax ku bon laa bëgg ma ko ba mu baax mm-hmm. jamono jooju li waral loon kàddu googu mooy si sànge dafa maa duggoon man mi di wax ak yéen ndax dafa am ay doomu adama yéeme yoo xamante ne dañ doon ñëw di def ci kër gi yu yéeme maanaam léeg-léeg ñu leen ràññeet la wut kat dañu naan njabootu sëñ Bassirou Kane yi ñoo def li léeg di fab yëfu jàmbur léeg di gens léeg di tox léeg-léeg di drogué mu dem ba loolu métti ma to ay to duñu ay ñëwuñ ci moom aslamtu nafsi waaye sopp buñ ko sopp moo tax ñuy ñëw di defaat loolu ñu xàmmeewul ne njabootu sëñ Bassirou Kane la loolu dafa dokkoon li may métti hmm. ma commencé leen xeex mu woo ba ma ñëw ma ne ma maxtaar ma ne ko naam hmm. mu ne ma xanaa xamoo man bëgguma ko baax ma ne ko sëñ bi lay wax ne mu ne ma ku bon ba ñëpp yi ko ba ñëpp fàtte ko moom laa bëgg récupérer ba mu baax mu ne ku ba pare dama koy baax dama koy bàyyi muy waaye ku bon lay jël baaxal ko kooku kenn si kaddu sëñ Bassirou Kane mi nga xamante ne moom nga ma laaj moom moo kan hmm. sëñ Bassirou Kane mi nga ma laaj mooy koo xamante ne da euh, doomu aadama yi hmm. maanaam taalibey jàmbur yi hmm. maanaam ñoo ko tee avancé waxuma ay taalibeem de egsi gu ma ci ay taalibeem taalibey jàmbur yi ñoo ko tee avancé sëñ Bassirou Kane boo amul étage boo amul yi oto yu rafet boo amul yi kër yu rafet boo amul ay compte bancaire doomu jàmbur yu muy tëral ak sagala tax dama lay indil boo xamante ne moom tamit daf maa daf maa frappé Euh, yaakaar naa euh, police. Hmm. dafay am ku ñuy wax inspecteur. Hmm. yaakaar naa inspecteur de police bu buy toxu beneen war naa ñëw dañ koy jox renseignement généraux yi am si dëkk bi yëpp. Hmm. waaye si biir renseignement yooyu dañoo wax dañuy dañoo waxoon inspecteur benn inspecteur ne ko bari na fi ay Baye Fall yu fi nekk dañuy Baye Fall Baye Fall lu waaye du ay Baye Fall ndax benn Baye Fall bonul barki Seera Fall mu ne dafa am ay Baye Fall yoo xamante ne dañuy Baye Fall Baye Fall lu ñu ay Baye Fall mu ne dinañu def lu ne. waaye ba mu des njabootu Serigne ba Kane mu ne njabootu Serigne ba Kane yi mu ne am ah, mu ne ko ñooy ñaa xam ne musu ñoo ramas ba ramas leen musu ñoo indil sàcc ba ñu ba mu doon si njabootam wala viol ba mu doon si njabootam wala naan ba mu doon si njabootam moom jour bu mu jëlee jour bu vendredi bu mu ñëwee lundi bi nga xamante ne dafa war a liggéey mu am njaboot koo xamante ne si ay njabootam dañ leen a téye woon si samedi jooju ñu defi woon lu ñaaw maanaam ñu sàcc woon Serigne Bassirou Kane mu may dégg waaye ëpp na ñuy wax kii ñu sàccaloon kan la ki sàccoon kan la ak ki ñu sàccaloon kan la ndax waxu rajo la mm-hmm. waaye bi ñu bi seen kilifa boobu mm-hmm. Seex Basir kan la yebal mm-hmm. ne ko dimbale ma seen njaboot sama njaboot jooju bala ñu leen jàllale ñu fanaan fa samedi fanaan fa dimanche lundi kon dañ leen a war a jàllale ma ànd ak Seex Basiru kan neew ma lañ maa nettali damaa fekke maa ngi takk njëllam ñu ànd dem si police centrale bi commissaire bi mu ñëwee dafa ne eh kaay leen ngeen yóbbu gars yi na oto bi ñëw yóbbu leen brigadier bi wala wala benn si policier yi ne ah, am na benn kilifa bi ñëw kat di ñaan intervention ba mu ñëwee comme première in première service am la mhm. dafa ne gisuma sëriñ bu mën a taxaw fi ñaan ma ba ñii duma ma jàllale mhm. xanaa kenn sëñ ba Kane ndax nee nañ ma moom rek la fi njabootam mel noo xamante ne sonaluñu kenn mhm. jour boobu damaa gis sëñ bi tur ay xéwal sëñ bi tur ay xéwal sëgg sëngeem lu yàgg ma sëgg bi sax sama bopp commissaire bi xool sama dënn mu gis photo bi ma takk mu xool sëñ bi mu ne ma xanaa kii mooy sëñ Bassirou Kane ma ne ko mooy sëñ Bassirou Kane mu ne ma kon gars yi lu ñu ma wax du dégg ma ne ko dégg la ñii duñu ay njabootam man mii njabootam laa ak ñu mel ni man ñii duñu ay njabootam bu nekkoon njabootam nga téye du ñëw du ñëw intervention waaye kilifam moo ko ñaan pour mu ñëw intervention mu ne ko bàyyi naa leen hmm. noonu la leen commissaire bi bàyyee moom mu ngi may dégg xam na li may wax kon jëmm jooju mooy sëñ Bassirou balaa ñuy ñëw si si si si si xar baaxam si def defam si kiyam buntu boobu daal sëñ Bassirou daal mooy nit koo xam ne nit ku jullite la nit ku yaarame la nit koo xamante ne benn bañ la am mooy li sëñ Tuubaa ak bañ benn bëgg la am mooy li sëñ Tuubaa ak bëgg kooku mooy sëñ Bassirou Kane xam naa ñëw jox Cheikh Moussa mu am ay temps xaat yum ci def xam naa temps xaat mooy ay ay contribution daal ndax ma bàyyi arab bu bari bi ci ci fatabarakal waxtaan solo bi ak fi nga xamante ni fa ko démarré si góor yàlla bu màgg bi di suñu maam Serigne Alioune Kane radiyallahu taala anhu di taalibi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiin doon jëmm joo xamante ni ku ma bàyyi woon xel la waaye nangul ko njébbalam waaye yabal ko njar fa tabaarakallaa na nga ko waxee ñu jokk ji foofu waaye mu amoon mébét boo xamante ni mooy jumaam jii tey ndax daara ji tool yi jumaam ji yëpp addee kër sëriñam yii sëriñ Seydina Alioune da koo fonkoon Seydina Alioune nag bi mu fi jógee am na njaboot yoo xam ñoo taxaw wuutu ko ci te kenn ku si ne am na service boo xam moo yor te sëñ Cheikh mii nga xamante ni moo ñu meññal sëñ Bachir mi mhm. tey jumaa ji nga xamante ni jumaay bàyyam ji nga xamante ne ay min ñoo ci dem amaat sax yam gën a xam la ca dem mhm. taxawaay bañ ca taxaw ak mbokk yi bañ taxaw ban dimension nga ma ci maye sa jumaa jaam na ak mébét yi nga xamante moom la mébétoon te njaboot gi tey ñëw réaliser la eh, jërëjëf euh, sëñ Moussa loolu tamit lu lu lu neex la xam nga li gën a neex mooy laaj loo gën a laaj loo xam mhm. euh, maanaam foofu la ma li ma ci gisee rek mooy diggante Serigne Touba ak sëñ Moustapha Mm-hmm. maanaam maanaam maanaam nisër googu si jumaa jumaay mbaalin gi nisër googu waaw sëñ sëñ Touba mm-hmm. ak digganteem ak sëñ Modou Moustapha Mbacke mm-hmm. maanaam taawam ba maanaam loolu laa gisee jumaay mbaalin ndax mbaalin amoon na lépp ba mu des jumaa mbaalin amoon na lépp ba mu des juma te li ma gën a yéem ay ay doomam nañ jël ku mel ni sëñ Assane Kane ñaata juma la tabax maye ko ñaata juma la sëñ Assane tabax maye ko ñaata juma la sëñ Cheikh maye yi ma xam ñaata juma la sëñ Mor maye si yi ma xam waaye jumaa jumaay mbaalin bi desoon të waaye nag lépp loo gis app la mm-hmm. app baa ngi soog a jot mm-hmm. jumaa ji nag maanaam sëñ Mor Kan moom mooy gérant général bi mm. mooy xalifab Seydina naa mm. Kane di magu sëriñ Seex Kan di magu sëñ Assane Kan di magu sëñ Modou Kan di magu sëñ Aliou Kan di magu sëñ Bada Kan di magu sëñ Ousmane Kan di magi di magi di magi di magi di magi mm. waaye nag si biir loolu maanaam maanaam ay goo gis maanaam njël loo gis am na ko aye togg ko mhm. waaye njël la nag bu nga xam dem na ba nga xamante ne joxe nañ dépense ga maanaam njël la maanaam si sëñ seekan la dal sëñ nag bu ñu ko waxee mun boo ci génnee sëñ Bassirou Kane si sëñ seekan sëñ seekan jeex mhm. donte nag sëñ seekan nay léppam nag mhm. ndax léeg li nga doon wax léegi si waxtaan bi ndax ndaw yi xam nañ kumba si wax jafe na rawat na bu ñi lay amul dégg-dégg li nga xamante ne sëñ Bassirou Kane maanaam waxoon naa leen sànq ne def lu baax moo ko tee am tranga jumaa ji buñ ko sumbee lu mu yoroon si oto da jaay. Uh-huh. lu mu yoroon si oto da uh-huh. jaay lu mu yoroon si oto rek jaay. Uh-huh. aka mën a sagal sagalaate day jël alalam def ko si jumaa ji dal ne samay taalibe ñoo ko ci def donte nag taalibe dinañ fortaat waaye ku laaj un million ne kaay leen ñu yóbbu un million ngeen joxe taalibe joxe cinquante mille taalibe yëpp dajaloo joxe cinquante mil neuf cent cinquante mille yi desee kan ma ko joxe muy sëñ bi kon juma ji niseer bobu lañ ci am yalla nañ ci yalla dimbalé bam mu ak jàmm. akay hmm. barakallah cheikh bi eh, wax ji amna solo lol xamna ñi ñuy rek ba légui ci moy wax nañ Cheikh Bassirou Kane eh, borom borom daru hmm. borom daru kan borom daru kan sahibul Qur'an eh, tur wo fan la ko ak lan moy sababu tur wi. jërëjëf xam nga moom nag lépp ma baatine sëñ Bassirou Kane lépp ma baatine day am loo xamante ne dafay ëpp wax si rajo waaye turam wuyu na borom sëñ Bassirou Kane saa yoo ko gisee mu toog boo nekkul si kurusam mu ngi sa Alxuraan hmm. Hmm. waaye yaakaar naa sëñ Bassirou mu ñu ko tuddee muy seigne bassirou kan arfan mom bu seigne bassirou arfan wali wala bu mag boobu noonu borom beug mi lañ ko tuddee. Hmm. seigne bassirou hmm. kan borom beug mi seigne bassirou kan borom Arxuraan. seigne bassirou kan borom daru kan. seigne bassirou kan borom Yërmande. Hmm. seigne bassirou kan jambaru serafal tour yi bari na. waaye li ko gënal si tur yi si jamono jii. borom arfan la. lu tax. loolu moom leer na <coughs> ngeen jéggal ma mhm. ah, li ëpp ndax nit buñ ko tuddee benn mbir amma moom bu ko baham, bu xam ndax mhm. man ba xam bi ma xam sëñ Bassirou amul sañ-sañ tëb tëb ne man may sëñ Bassirou Kane xam bi ma ko xam mhm. waaye fi tur ba jógee ngir nga xam ne loolu dëgg la jëmm ji toog moo yore daara ja dafa jàngal alxuraan at bu nekk saa su ne mu ngi nab nabi di xool naaxal la alxuraan di bi di saxee si daara ji Mm. daara ji man bi ma ko xamee ba léegi daara ji ak ak daara jàngal alxuraan ñoo ànd mm. ni ko mel ni bay am di cun jaar na fi yore daara ji ni ko mel ni bàyyi taala mm. jaar na fi yore daara ji mu defar leen ñu dem ni ko mel ni sëñ Moutala yor na fi daara ji mu defar ko ni ko mel ni tey sëñ Moussa yore daara ji mm-hmm. yàlla na ci sax ba wàccee ci wàccee ci wàccee ci wàccee ci kon sëñ Bassirou kon alxuraan alxuraan rek ko ñor mm-hmm. wa amaa nag fan la tur ba bàyyi ko manam doom adama lepp loy wax hmm. na nga wax sa diggante ak yalla hmm. tok si radio bi ak bëgg sëñ Bassirou Kane du tax mokk ma yëkkati kaddu goo xamantene dama koy lam lamé man ak laye guma biir hmm. guma biir fan la sëñ Bassirou Kane alquran bu joggé waye sëñ Bassirou Kane alquran mom forox na sama nopp si bëgg alquranam si nangu si nangu alquran si déggal alquran si selal alquran si darajal alquran lool mo xam na ko jërëjëf barakallah Eh, kon Cheikh Moussa loo ci kii xam naa est-ce ma ko bàyyi sax yéen ñaar ko ndax xam naa ne ah, yaa gën xam roq yi roq nga bëgg mu génne ko incha allah. Eh, tabarakallah jërëjëf eh, la. Mm-hmm. baax la parce que. wa ma shahidna illa bi xam. Mhm. ak moom. Mm-hmm. fa la mm-hmm. sama sëriñ si moom laa jokk moom laa ne aslamtu nafsi. dëgg mun dañuy waxtaane lu bari si néegu biir mun ma sëriñ Basiir Kan alquran bi tuddee wu ma ko sama bopp de mm-hmm. mun ma sëriñ Abdul Ahad moo ma ko tuddee ca daara ja mm-hmm. mun ma daara ja dafa am tur buñ ma wutaloon mm-hmm. tur buñ ma wutaloon biñ ma koy woowee nag ba mu dugg si nopp sëriñ Abdul Ahad mu ne kooku kan la ñu moom nañu wooyoo mu ne ëpp naa def te ngeen ko wax Bachir alxuraan waaye mhm. mu ni baat boobu nag moo sax sëñ Bachir alxuraan boobu sëñ Abdou Lahad waxoon na baatam boobu moom la yàlla barkeel ba suñ doon yàlla tey jii mhm. mhm. mun ma looloo waral sëriñ Bachir alxuraan fa tabarakallah pour ña nga xamante ne xamuñu ko woon lii moom noppam sama nopp fa tabarakallah muy loo xamante ni jëmm joo xamante ni ni mu ko waxee jëmm ju sell la jëmm ju sell la lan mooy sababu ñëwam daaru kan sanc ko ndax mag ñi seen liggéey kenn ku si ne fa nga dëkk sa mission jooyalee woo ko foofu. maanaam sëñ Touba fa mu dëkk mission tey dëkkoo Touba maam Cheikh Sidi Hadji Malick dëkkoo Tiwaawan mag ñi kazak maam Cheikh Ibrahima Fall tey eh, gis nga ko tey fa tabaarakalla kenn ku ne am nga poste tan waaye sa mission am na fu yàlla wax ne fa nga koy jooyalee tey ba mu mën a tax lan mooy sababu Daaru Kan. ndeysaan da nga ma ko laaj ak ma ree. wallaay di nga ree. ndax eh, Daaru Kan. <laughs> Uh-huh. bu moo mujjee Daaru Dara kan boo amee ñeenti at juróomi at ci la yem kan yàggul hmm. moo tax da nga ma ne kan rek ma ree ndax daara fekkante la ah. day am ñu la fay nga am ñoo fa am ñoo fa am ñu la fa fekk euh, bëtu ñu bari nag xamuñu ko ak yeex xam hmm. ma kan sama xol dafa sedd ndax jàmbaar ji ñu sama xarit hmm. di sama wulere, di sama soppe mooy sama bayi, mooy sama mak. moy sama rak moy sama xarit moy sama nijaay moy sama serigne moy sama wasila moy sama confident tay ji lama mujjé wax batu yaay sama confident barki mam Cheikh Ibrahima Fall ma yaakaar tay ji lama ko mujjé wax serigne Bassirou Kane dafa nek ndaw jo xamantene ne waajuram bu góor sëriñ Cheikh Kane moo ko yebal fii Thiès Medina Fall mu dëkk ci benn kër fii si Medina Fall si boulevard bi stade bi angal sëñ fallu moom moo tuddee angal jooju angal sëñ Fallou bu nekkee da ngaa jógee juuti ba balaa nga egg kër Mor Jaxeer angal bi ngay njëkk a jot la bu nekkee da ngaa jógee booru euh, booru Don Bosco boo paasee kër Mor Jaxeer di nga romb benn angal beneen angal bi ci teg la foofu la sëñ Bassirou Kane dëkkoon mu nekk nag si luwaas mm-hmm. fu ñuy mën a dem loué car ak ak jël taxi sonal ñu lool te léeg-léeg dama doon daf ma doon naqari sëñ bi bu génnee di xaar taxi taxi di ñëw maanaam di ko dig digal mun na ma maxtaar xanaa xamoo cër fu ñu la xamee mm-hmm. mu ne ma maxtaar ma ne ko naa mun ne ma cër fu ñu la xamee ni ma xamee nii bu ñu ko xamee woon seen taxi bu taxawee bu ñu yeboon client dañ koy wàccee yeb ma waaye xamuñu ma cër fu ñu la xamee mm-hmm. kon dèjà yaa ngi gis oyofu sëñ Bassirou Kane mm-hmm. dafa damay tontu lu ma laaj di ton di waxaale jikkoy seexal Basiir ma ne ko sëñ bi ma ne ko ah ma ne ko fexee jënd oto mu ne maxtaar oto sa kër nga koy gaare waaye jënd oto gaare ko si buntu kër gi jàmbur du sag gis nga kër googu noonu dafa am këru mu xaddamu sëñ Mansour si bu mu jàkkaarlool kër gi ñu nekkoon dafa am këru mu xaddamu euh, paawadd kër ñoom paawadd ndeysaan léegi am na benn bés si jukkoom mm-hmm. dañoo am daayira ñun mm-hmm. ñun ay Baay Faal mm-hmm. xiin gi day tege laa ilaha illallah bi day jolli ñoom aussi le même jour ñoom aussi ñoo am daayra ñun installé nañu ba pare installé nañu ba pare ba commencé madda ñu gis ñoom ñuy lal seeni bassan pour ñëw def daayra ñun mën nañ leen a yàqal mais ñoom mënuñ ñoo yàqal ndax ñoom bu ñu jàngee ñu jàng bakk suñu xii ñoom ñun duñu leen dégg te ñoom dinañu dégg sëñ Bassirou Kane ne xaw woon ne ñii dañoo ayete daayra tekki leen lépp ndax baatu laa ilaha laa bi benn la te kii sama kilifa la kon fu mu ko yëkkatee jarul ma ko yëkkati su ko yëkkati fii ma ko yëkkati fii kon day nuru du dëgg nañ nañ ko bàyyi ñu ñëpp ñu maase toog ñu fa mën a dem ba foofu toog fa toog fa ñu fa mën a toog nañ toog fii ñu maase déglu leen ba ñu pare mu ne ma oto sa kër nga koy gaare uh-huh. ñuy dawal noonu mu am benn mu am góor goo xamante ne léeg-léeg moo doon jël si luwaas bi uh-huh. góor bu xaw a bu xaw a ñëwinam nu ko neex lay lay ñëwee sama kër la rek lu ko neex lay ñëwee. Mhm. am na am na benn bés sëñ bi dafa yore luwaas bi xaalis luwaas bi sëñ bi dafa yor di xaar góor gi ñëw pour mu jox ko mu am ku ñëw jàmbat ko sëñ bi yëkkati xaalis boobu yëpp jox ko mhm. paa bi ñëw su lu mu waxul la ko fàtte suñu bëggee jare mu ne ma waxtaan mu ne ma mu ne ko bés dina ñëw dina jeex jamono jii si aajoom la ñu nekk waaye dina ñëw samay aajo mhm. ma tëdd guddi sëñ bi woo ma téléphone ne ma sama kër ga léegi mu ngi may dégg mu ngi déglu émission bi tey damaa bëgg waa Daaru Xar ñu bëri xamaale ñu ànd di dox di goudron bi di dox di dox di dox ba si biir kam ba si biir kàmb yi ñax moo ñu wër fu ne ñu dem dem dem ba fu mu gas teen bi teen wax ma teen bu mujj bi teen bu njëkk ba mu jonkat foofu tibb si ñaari suuf jox ma ne ma xenc suuf si ma ree quoi mu ne ma fii est-ce xam nga ne mooy nekk suñu dëkkuwaay ma ne tekk mu ne ma fii mooy nag suñu dëkkuwaay mu ne nag fii su ma fi dëkkee ñi déggal ñoo ma fi fekk waaye ku déggalu doo ma fekk ma ne ko ah sëñ bi am nga ko ba pare mu ne ma amaguma ko waaye yow laa si doon waxtaanal ndax ma jël ko wala bu ma ko jël xoolal bii sëriñ sëriñ buy ànd ak taalibam bu gën a xeebu di ko laaj xalaat ma ne ko sëñ bi kat loo gis sama da cee dàq loo gis sama da cee dàq nii la sëñ bi commencé projet Daaru si voie yu légal nag nekkul la Daaru Kan kambula ay kambula mhm. waaye kamb boo xamante ne populaire la waaye tëbul tëb rek ñoo sanc fa déedéet dafay jaar si ay voie yu légal sëñ bi bëggul du koromp kenn mhm. am naa ay talib yoo xam ne ay inspecteur lañu ay chef lañu ay kilifa lañu mais boo amee problème day wax ne demal nga jaar la ko si yoon man ma man ma aw si yoon bu ma war a jaar pour muccal koo Hmm. daru kan ni la sokke ko hmm. ñu joge ci ñu joge ci ñu joge ci ay courant hmm. fo xamantene dañ doon tal courant tal ventilo da ngay xel da ngay ñëw si rob ne ñu joge ci yoyu soog a nag dem ci ginaaw dekk ba nak ci Allah ba Allah bu lëndëm xamna ay wa euh, comme niñ ko baax dafa 88 628 37 37 pour ñi nekk ci biti inshallah allah man ñe and ak ñun ci biir ku ci am loy dool rek looy motta leerlu 88 628 37 37. aywa Fadal maanaam bu ñu fa toxoo. Mhm. ndeysaan ay néegu ñax la. néegu néegu ñax yi nag jàmb jàmbaar gi ñuy wax Seydina Omar Bey. Mhm. jamono ji taalibi sëñ Bassirou Kane la mu Gabon. xaw ma xamante ngeen am déet. Seydina Omar Bey mu ngi Gabon. ak euh, euh, Abdou fay góor yàlla. Ah, ah. ñoo ñu bokk na si ñu gën a tax fës. maanaam si tuxal daara ji foofu noonu ndax sakket ya néegu ñax ya selen ya li ñuy wax selen. Mhm. maanaam li nga xam ne moom lañuy ñuy xëddee. li si ëpp ñoom ñoo ko wuti si àll ba. Ah, ñëw def sonan yeeg nduur yi xat yeeg yooyu. yooyu xat noonu. Ah. moom la ñu wërale woon. man man man jógee naa sama benn xarit Dakar ay minuit la ñu si fekk woo naa sëñ ne maa ngi ñëw ak sama xarit bi ma ñëwee fanaana moom bi bët setee bu mu gisee ne ko xat mu ne ko fii laa fanaan mu ne waaw mu ne ma damay ñibbi wallahi daa ñibbi xaaru fa ndëkki daa ñibbi pour wol na si melokaan kii woon. waaw bismillah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Basiru kat ngoog bisimilah Cheikh Mokhtar waxal. Eh, alhamdulilah rabbil alamin sëñ Basiru. Eh, waaw ku baax. waaw ñu ngi lay dalal jàmm jërëjëf kan. ñoo ngi leen di ziar. ñu ngi lay dalal ziar. di leen balu xaq. di la balu xaq bu baax a baax kan. di baal xaq mboolem jullit yàlla yëpp. wallaay kan wallaay kan. di ñaan ci daraja Seydina Muhammad yàlla ñëpp am jàmm. amiin kan amiin kan. ci barke weeru koor yi. di jiital ci nuyoo bi. sama hari tu Bob, mm-hmm. sama Ustaz, Cheikh mm-hmm. Musa wad mom dis gor di nit ku Al ku yàlla kese ñor ak alxuraan di ci teg mbooleem ñi nga ne moom ngeen bokkal jataay bi mm-hmm. bu ma génnee foofu itam may sant mbooleem waa àdduna bi uh-huh. di kan? ba kan? kenn waaye nag wa sahadatu muridina sop maam Cheikh Ibrahima Fall Waham xam sa diine wa daaray daaru kan serigne Basiiru mu ngi siar ni di wax ne tay ji dal sama xol sedd na guyi kent go xamne amna tambali way amul yam way di leen ñaanal yalla na lim suñu borom doolee taxaw Cheikh Maxtaar jërëjëf kaddu yi ma ngi koy Oustaz musa te Moussa Kallam la jërëjëf kan maa ngi leen di dégg jërëjëf kan waaye nag di leen wax ni mm-hmm. lu leen waaye mën a wax ci basiru mm-hmm. dongo bu lot mm-hmm. bu xeebu bu bëgg alquran ak diine bëgg Serigne Touba yaakaar Serigne Touba doyloo Serigne Touba kii mooy basiru Kan dem Touba jàngi ñëw baayam yar ko sampal ko daara mu nekk fa di jàng di jéem di jàngalewaat ñam fa bokk nekkal wutu fa lenn luy nuroo ko Basiiru bëggut dara lu dul ngërëmal yàlla te Sëñ Abdou Lahad Mbàkke nee na naa fa mu sañ cëb dëkk bu maani ñëwee mu tuxu dégg naa fa mu sañ cëb dëkk ñëwee mu tuxu lu ngeen mën a dégg sëriñ bi nee na Basiiru nee na taalib sëriñ Tuubaa dong la bëgg doon ab jaam jaamaatam di alali Serigne Cheikh Kan ca mbalen ibnu Serigne Aliou Kan di sëtub Ilimaan Boubacar Kan ca Dimat ak Abdou Khader Kan ah. di taalibeb mam Cheikh Ibrahima Fall mhm. mujjé ci Serigne Fallou Mbacke bam ne ko aljana don ta xott jottale yak o andal am nga fa mboy ci jam jaamaati Serigne Cheikh Kan yooyu la basirou Kan ni don fañ ci daru Kan mhm. nek fa di fa mhm. donga ànd mbokki dongam yima la limal muy sahadatu murid nga xani ñom Euh, waa xam sa diine sopp maam Cheikh Ibrahima Fall soppee fiñ Basiiru waa kër fiñ Fàllu ñii la fi Basiiru nekkal te mm-hmm. fii ci Daaru Kan mm-hmm. Daaru Kan itam mm-hmm. Sëriñ Tuubaa ma ko séddee mag ñi fi ne yàgg na fi tax seen bët tegewu ci gone yi fi ne yàgg nañ fi seen bët tegewu fi Sëriñ Tuubaa séddee ma ko ma teg ci sama bët ngir jëw jël ko la ci biir lépp ma def na ko bañ a wax waaye jàppale ni daal daaru kan mm. cër ba fa sëriñ Basiru kan am sancal ko boppam Sëriñ Tuubaa ko sédd mm-hmm. danaa dogale suñu borom yi mm-hmm. oustaz ah, ah, maa ngi sant lool ah, mm-hmm. Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moo ma dimbalil boppam di sant yàlla suñu borom mi nga xam ni moo ma dimbalil boppam kay kan def ma ma dib jullit def ma ma dib murit daf ma may alali maam Cheikh Ibrahima Fall kan. bëgg a takk garaat bii dong yam ci bëgguma caa yokk dara di sant Cheikh Makhtar moomu toog ndax ba muy door lañu di liggéeyal Serigne Touba wallaay wax nga dëgg mu dem ba mu mel ne luy niroog dara mhm. ñu sampal ko daara mhm. mu nekk fa dis gor di ay junni moromam mhm. waa jërëjëf euh, mbokk yi kookoy Serigne Bachir kan saaxibul Quran borom daaru kan Eh, di wax leen ni Serigne Talla egsi na si studio bi léegi fa la di rakku Serigne Bachir fa tabaarakalla eh, yar kuréel gi nag di bàkk yàlla kañ yonent yàlla Muhammad salaam jaar ko ci xalima mag ñu baax ñi egsi na eh, fa tabaarakalla ñu seedeel leen ko loolu di leen wax ne Serigne Bachir daal dinañ ci gën a ñëwaat xam naa bala ñu sori Oustaz Habib sëñ Mokhtar mu ngoon fa am solo waaye ñu bàyyi sëñ talaa ñëw léemu jotaay bi ñu eggalawaat fi nga xamante ni moom lañ tolloon ak sëñ Mokhtar sëñ Talla bismillah kan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 مدح النبي المنتخى ساد إلى بيت لا إلى سوى حب إلى حب النبي للإله سورا ساد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله بالآل وصحبه ومن والاه محمد فرد يفوق تسليا والخدايا مخنيا درجة المختار بالمرسل بعتلاء الدرجات رسل كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلة والمتبع أحمدنا الماء ما مساء ولسوانا ساخ من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جمالا يسبي فؤاد راي ونهج يغني عن افتراي مدى والإسلام مدلنا الإيمان والإسلام واحسن الإحسان لن يلام يسور الخطية في كل سنة وخيره من خدمتي محتسنا لم يخف مرخي ولي بالإلاج بروم جارم rawdati wal weyti saadun wayla subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin barke borom baarakallah Sëriñ Mortala Kan nga xamante ni fa tabaarakallah yal na yàlla bàyyi la ak sa yàlla del yàlla defal la baatu Daawuda defal la Suleymaan defal la terang Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka barke Seexul barka barke Serigne Bachir Kane jërëjëf fa tabarakallah eh, Cheikh Mokhtar ñu ngi won fu am solo ci senjuk Serigne Bachir ginaaw bi mu jotee ndigal way juram mu ñew fi nga xamanteni mom moy daru Kan ndax it fa mag ña jaar dama gis tank yoy la jël mm. muy mag ñi fu ñu dem gor nañ fak sampu samp li nga xamante ni moom mooy eh, nu mu tooti eh, teen ba gas teen waaye samp daara waaye nekk nag ci projet juma te yooyu yëpp gis naa ne sëñ Bachir mu ngi ca boo demee daara ja ndonga yaa ngi toog di ma xaar ndonga yaa ngi may déglu parce que maa maa nekk ak ñoom ca daara ja mm. fa tabaarakal ñu ngi woon si sosug nag li nga xamante moom mooy daaru kan ndax sëñ Bachir gis nga sànq bi mu duggee qualité ya nga xam moom la wax lu mu am yooyu yëpp dàq na ko doonuk taalibe mm-hmm. waaw ku amul cër nag doo too taxaw taxawee ba mm-hmm. bari na ko fi waxtaan bu duggee màqaama lay xëcc mhm. waaye moom dafa delloo lépp garaat lépp mu wàccewaat ko delloo mhm. nag boppam ci ak taalibe fa ñu tolloon jërëjëf balaa ma faa ñëw ma dama lay ñaan rek waaw mbokk yi 88 la 628 37 37 ku bëgg a jokkoog bu euh, salaamaaleykum aleykum salaam aha kay waaw Basiirou la waat ba tey sang bisimilah. yëf yi daa kii. wallaay waaw waaye gannaaw loolu yëpp. Euh, diggante bii nga xam ne maanaam yëf yi am na lum nu wan. waaw. war na noo mën a jàngal lu bari ci àdduna ndax ginnaaw tubaab bi do nga moo am pexe yu toll ni waaw da ngay wax ca sa soxla mu ñor ko mu ñor la lool la ngeen digge jeex la ngeen dige mhm. app ba jot mu ne ko dagga taddu la naqari gis nga de téléphone sàkkantumaa mag mu tol ni yàlla nag wallaay wax nga dëgg kan sëriñ tubaa nee na ah. démba def des na loo fa deful ñàkk nga ko wax nga dëgg suba xamoo ba xam na la fekkam di yaa ngi tey na tey rafet ta ci loolu ngeen ne muy ihsan bi allahu akbar gannaaw loolu lépp jàll ah. li ngay laaj mhm. muy Basiiru mm-hmm. fi muy dox mm-hmm. mooy doonub donga gannaaw bi nga xamee ne turu yow muy laajte ne turu sëriñ Basiiru alxuraan bi waaw sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mm-hmm. leeru boppam gi nga xam ne mooy si Ahmadou Fadal Mbàkke waaw uh, diggoon geen aw fas wu na ko joxoon uh-huh. fas wa bañ a liggéey ñu di ko yedd muy jooy mooy fas wu weex wa nga xam ne moom la Sidna Alin Kan moom uh, moom uh, maam Cheikh Ibrahima Fall waaw daan warta fas wa tuddoon waxati leen waxati leen nga xam ne ta tàmmulu machine mooy comme fasu weex wi ne ci kër gi. dëgg la dëgg la. ba ba ñuy liggéey. Mhm. la jotale Sëñ Fallu ca fas wa. Mhm. ba maam Cheikh Ibrahima Fall làkkoo ba mu des fi Sëñ Mourou Moustapha. Mhm. gannaaw loolu lépp am. Sëñ Aliou ci fa mu mujj ci Sëñ Fallu. Sëñ Fallu Mbàkke daf ko ni. Aliou mu naa mu ne ko euh, bisu màggal gii. mboolem jumaa ji ñi fi ne. dee leen añal. soo ko defee. mboolem koo xam ne misaal def na ci ñaqam. yaramam araamal na sawara. allahu akbar. suñ Fallu Mbàkke wax daal ni ko. Mhm. waaye ndaxam de ndab yi ku ci yanu. mooy sa njëggim siraat. suñ Fallu Mbàkke wax. Mhm. suñu àll di ko jox fas woowee. Mhm. moo waral ñun ñii ñu di ay Baay Faal. est-ce que. boo ko tuddee ko woor. ndab yooyee ban koy togg di yóbbu. booba Basiiru doon perantal bu tuuti. tombeeg si a Ahad Mbàkke nekk fi xalifa. sama bàyyi ma nettali. bi ñu ñëwee di andi ndab yi. waaw booba demeewut nii. demeewul nii. bay juru wax. boo jël ma teg ma ci wetam. su ñëpp laa daal ma yëkkatil boppam teg ma ci kaw poojam. jël lox ñaari loxo yi teg sama bopp ñaanal ma. bu sama bàyyi duggoon dana ko leeral. waaw daal di leen leeral leen ba basiiru alxuraan a ngi nii. daal di koy jox suñu asaafi ca Tuubaa delal. Mhm. loolu yi moo waral ndab ya nga xam ne suñu borom dogal ñu ko togg. Mhm. te la tur woowee déparé. Mhm. ba tey jii nag suñu borom dogal. ndax man suñu Basiru Mbàkke mu mag ma lañ ma tuddee. dëgg la mm, direct moom Sëriñ Tuubaa sama baay wax ma ni. Mhm. mbooleem yonent yi. Mhm. gannaaw ngeen gi mbindeef. Mhm. yonent yàlla Yuusufa da koo neex lool. lool mbooleem turi yàlla yi. Latif neex ko lool. mboolem waa kër Sëriñ Tuubaa. waaw Sëriñ Basiru neex ko ci lool. saa baay ma wax lii. dellu dellu wax ma ni. cër bi ma la wutal. alaaji ma sàmm soxna Culga la. Mm-hmm. ak sëñ Aliou Kane. Uh-huh. man sama wayjuru góor wi. waaw ak wayjuru jigéen wi. Mm-hmm. doomi ndijaay doomi bàjjen. est-ce que. sëñ Aliou Kane. Mm-hmm. yaayam soxna Mati Badiane la tudd. Uh-huh. moo njëkk a takk laxasaay. topp maam Cheikh Ibrahima Fall ci jigéen yore njañ. muy soxna Mati Badiane. ka ca topp. di soxna Fatim Badiane. ndax soxna Mati Badiane moo ne Sidna Alin. balaa sama kër gee far. dawal nga jëlee li ma ci sama xeet andil ma ci biir kër gi. moo waral ñu dem ci soxna Fatim Badiane. Uh-huh. ci suñuy nopp toog ko ci fasam andi ca kër ga. Uh-huh. moom moomee di soxna Fatim Badiane mooy sama wayjuru wayjur wu góor. Uh-huh. soxna Fatim Badiane moomu. ak uh, ca uh, uh, Alaaji Masamba soxna. moo bokk ak soxna Mati Badiane di bàjjanam. ñu jox ko ko sama wayjur wu jigéen. soxna Fatim Badiane. di wéyjur wu jigéenu sama wéyjur wu góor. moom mooy bàjjanoog sama wéy eh, sama wéyjur wu jigéen. kon sama baay ak sama yaay doomi nijaay doomi bàjjan la. loolu yi nag. moo dalaat wéyjur wa ba tax ñu jëliwaat ko kon sama baay man sama nijaay la ba tey jii. kon ñu li ma lay bëgg a leeral rek. Mhm. loolee lépp nag taxaj naa ko. Mhm. doon seenub jaam. Cheikh Mourtada moomu. du du sama taalibe mhm. ci waxin mhm. sama rakka di sama taaw mhm. Cheikh Makhtar moomu noonu la demee kon li ma bëgg a wax yépp xaju fi ndax maa ngi jël émission bi waaye euh, li sëñ Blaat naan dara ba muy ñetti yoon yàlla ko xam ci moom dara doo def dara lu muy aaye àdduna ku fi xam dara doo fi def dara muy dara bàmmeel ko fa xam dara doo fi gisal dara luy doy daal di dellu wax ni. Hmm. say jaam yàlla ci taalibe. Hmm. yaatu. Hmm. nangoo muñ. tabe. teey. gëm yàlla. lewet. déggum ndigal. say jaam yàlla ci mboolem julliti yàlla yaa ngi noonu. Uh-huh. waaye Serigne Touba nee na. Uh-huh. say woo bëggee mu dëgër. Uh-huh. day am ñaari takku. mooy maandu ci ku yàlla bind. da nga tànn ñi ngay roy. soo ko defee. du ngeen layoo fii. du ngeen layoo fa ngeen jëm noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàyyi ngeen doxal li wér te wóor mooy bég naa lool kontaan nañu barke seex Khadim Cheikh Moussa maa ngi lay ñaanal ci barke weeru kooru tedd wi yàlla na nga am sa télé bopp amiin kan amiin kan say rajoy bopp <laughs> ak mboolem ko yéene ñi nga nekkal foofu maa ngi leen di ñaanal yàlla na nu fekke déwén ñun ñëpp te kenn bañ a manqué te lépp ànd ak wér. maa ngi sant ñëpp ngeen doxal maa ngi leen di déglu sama xol sedd na guy. am na sama mbirum boppa defuma ko ngeen ngirtal. waaye man ci sama jëm. Mhm. maa ko sasoo ak yéen ñu nekk ci plateau bi yëpp. ndax yàllaa tax a jërëjëfati incha allah jërëjëf jërëjëf eh, Cheikh Mouhamed Bachir. Eh, Cheikh Mouhamed Bachir. Oustaz macha allah Bachir Bacharani. waaw Bacharani wala ah, dëgg Bachir eh, bégal nga ñu macha allah. Ah. mu wax lu am solo. Euh, loo question boo xam ne sax xëy na bëggoon naa koo laaj. mais xaw ma ko ñu laaj tuuti. Ah, ah, mooy ñu nekk Baye Fall ba pare. Mhm. boole ci di julli. di julli waaw bu ma déggee jumaa ja dégg Baye Fall ni ma dégg Baye Fall Sénégal. <laughs> Ah. xawoon na maa kii am daan waaye mu xam ne mooy cause bi. kon nag loolu wax dëgg yàlla def na lu am solo lool. tontu tontu na ko moom. waaw tontu na waaw. waaw te dogoo dogoo tontu bi. waaw bu nekkee dogoo tontu bi. li tax ñu nekk ay Baye Fall ba pare di julli. waaw si biir waxam leeral na ko. leeral na ko waaw maanaam dañoo jaar si maam Cheikh Fall. mujjee si sëñ Fallu. waaw dañoo jaar si maam Cheikh Fall biir allah <laughs> kon <laughs> leer na nañ ma ngoon suñu xol ñu bëgg ko laaj far mu ñëw sax daan ñu koy détaillel ñu ngi woon si Daaru Kan Daaru Kan bi xam nga ba léegi dama fay teg sama baar dama teg sama sama baar tuuti ñëw si kilifa bu mag bi ndax euh, jëmm ji toog sëñ Moutala sëñ Moutala mhm. maanaam benn rek képp la mhm. mag jëmm ji doon wax li di sëñ Bassirou Kane si biir waxam dane rakkam la taawam la dëgg la mhm. kii sëñ jiilee baayam sëñ jiili Seydina Aliou Kane ay baayam sëñ Bassirou Kane sëñ Seex ay baayam sëñ Seex sëñ Aliou Kane ay baayam sëñ jiili ak sëñ Seex ñoo bokk ndey ak baay maanaam sëñ sëñ sëñ jiili si dundam dafa jëloon sëñ Moutala bi jour boobu tamit yàlla dogal na sama kanam la ah. sama kanam la jour bi muy jël Moutala mi boobu tamit euh, dafa euh, euh, yëfutu tànk rek di xaw a bañ di dem di jàngi yooyu noonu mhm. maanaam sëñ ba mu jël mu jël ko daal ne sëñ Bassirou Kane joxuma la ko lebaluma la ko abaluma la ko dama la ko may bu dundee dundal na la bu deewee dewal na la bu baaxee baaxal na la bu bonee bonal na la yaakaar naa waajuram bu góor bi tegu ci ay saa daal di dem aljana waaw waajuram bu góor tegu ci ay saa dem aljana loolu moom maanaam maanaam lu ñu fekkee la euh, euh, taalibe sëñ Bassirou Kane yi mhm. ginnaaw ñi ma jiitu waaw ginnaaw ñi ma jiitu man bu nekkee junni taalibe la am juróom-ñaar téeméer maa leen ne ne leen aslamtu naf suñu wax ko yàlla tamit defal na ma loolu si néew na lool nit di jëbbalu si moom te du ma fa fekk néew na maanaam li si ëpp maanaam man maa leen di wax li ñuy wax maanaam ci topp tàngal bi ñu sëddalee li si ëpp sama loxo ji lay lay jaan si mbaaxu sëñ Bassirou Kane maanaam woon naa la ne xëy na si kanam dañ fa dañ fa eh, ndax kilifa day am njëriñ mm-hmm. bu ñu eggee si njëriñ loolu si maanaam su ngeen ma ko mm-hmm. laajee bëgg naa cee wax su ngeen ma ko ah. laajul bëgg naa ah, cee wax ah, waaye waaye laataa loolu mm-hmm. eh, kii kooku mooy sëñ Mourtala moo doon yëkkati léegi eh, masala ñu bëgg ñëpp ñaanal leen daaru kan boobu noonu nag sëñ bi leeralaan na ko maanaam sëñ Tuubaa ko jox ndax mag ñu bëri ngi fi woon jaar nañ fi gisuñu ko ndaw yu bëri ngi fi woon jaar nañ fi gisuñu ko ay moromam yu bëri ngi fi woon jaar nañ gisuñu ko ndax xëppukaayu mbali rek lañ ko jàppee woon mhm. wala bu ndox ñëwee na fa taa loolu rek lañ ci gisoon am na ñoo xamante ne sax xëy na jàpp na ne ba léegi bu taw ñëwee xëy na ñu tëmb ci biir waaye baatin bu fa téye ak barke bu fa téye ñun doyloo nañu maanaam mu nekk tamit li beneen mbir mu yéemee bérébu jaan la mhm. bérébu jaan ndax dafa nekk diggante àll ak xur te ñëpp xam nañu xur ak àll bérébu jaan la <laughs> waaye wallaahi yaakaar naa ñu ngi si juróom-ñaari at si ren maanaam jaan mosu faa xuri nit maanaam bërëb bu jiit la woon jiit ja jiit mosu faa fitti nit léeg-léeg nga gis ku ndeysaan dama fekkee mu am koo xamante ne xel mi daa demoon hmm. ndax yàlla may na ko fasaa aussi ci faj hmm. maanaam bi xel mi demee ñu ñu indil ko ko ñu indil ko sëñ Bassirou Kane ndax ndax dama lay wax ne mu ngi may déglu hmm. te lu gën a ñaaw mooy fen si yàlla waaye lu gën a ñaaw tamit sa sëriñ toog taalibam di fen mu xam ne taalibam bi mu ngi fen moo tax sànq bi nga ma laajee suñu bésu alxuraan ma ne la tolluwaay bi egg comme egguma fa du ci togg du dégg moom ñëw na ñëw na ñëw ah. na leeral ko boxam bii tamit hmm. am na koo xamante na talaa man xaw naa fati mais demoon na ba wér ba bu ñuy def ay cant sax bokkoon na suñu toog si table bi mu nekkoon góor bu xaw rafet nii xel mi dafa xaw na wéra mu nekkoon si daara ja hmm. mu am benn bés ma nekk suñu bésu dañoo toog si biti nii mu daw ñëw mbokk yi 88 la 628 nga def 37 37 sëñ Moxtaar mu daw ñëw dal ne sëñ bi man daal dafa dafa am lu sedd lu may yéeg dafa am lu sedd lu mhm. bi ne ko waa góor sax maa ngi bëggoon yónni sax jox ko dara ne ko dama ma ndox mu woos tu tànk yi kenn ne ko dugal si biir néeg ba dafa mel ni jaan dafaa nag nga génn nga jàpp ko génne ko tu tànk ba dugg si biir néeg bi yëkkati matelas bi parce que kooku noonu amul tolluwaay ne moom jaan bi du ko mat amul tolluwaay boobu Hmm. kon bu bu ñu génne woon jaan bi si kanamam kon dootu fa fanaan wala dootu fa duggati. mbokk asalaamaaleykum. ah dem na. Ah, moo tax moo ca 88 ngay def 628 37 37 ak suñu wax. moo tax ñu yónni ko ba pare ba moom mu génn a ja. ñu soog a dem génne loolu. kooku mooy sëñ ba Kane waaye nag euh, euh, maane maane maane bane ba ba ba maane taxaw maanaam yaakaar naa lu ñu ci xam tamit maanaam sëñ Moutara moom jigéen ki mm-hmm. sëñ Moutara dañ lay delluwaat kàddu gi tuuti euh, sa maam la ñuy waxtaane mm-hmm. sa waajur la ñuy waxtaane sa xarit la ñuy waxtaane mm-hmm. sa mag la ñuy waxtaane maa ngi nuyu waa Daaru Kane yëpp yëpp yëpp comme ni ko sëñ waxee uh-huh. jëwrin yaak moom mi mooy suñu jëwrin daayira encore bi bi ñu koy jox jëwrin mhm. ak léegi man a ëpp na juróom-ñetti at mhm. wala waaw bi ñu koy est ce fukki at sax mhm. waaw parce que man dakaar rek def naa fa fukki at te bi ñu koy jox jëwrin boobu maa ngi fi fukki at boo ko génnee si atam yaakaar naa lu ndaw lay doon te boobu la ñu ko jox jëwrin mu jiitee ay moroom mu waajuram te ba léegi mu ngi doxal kenn ko accam sëñ Mourtala bismillah jëf euh, sëñ euh, Maxtaar góor yàlla fa tabarakallah si leeral gu am solo gi nga xamante ni yaa ngi koy def si góor yàlla gu mag Cheikh Bachir kan saahibul Quran fa tabaraka sëñ Mourtala Eh, yaa ngi noonu nga xamante ni eh, sëriñ Bachir sa kilifa la fatabarak sa lépp la ngay njabootam di rakam di nekk ci keppaaram mu yar la tette la ba tey fatabarakallah ñu lay déglu fu nekk eh, say son yi nga génneeg yépp ñu ngi koy bàyyi xel kenn muy Serigne Bachir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di leen ñaanal jàmm ak tawféex mhm. mboolem kuy bàyyi xel rajo bi bismillah ay bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam sang bi na ngeen def ñoo ngi sant yàlla bu baax naka ay tey ñu ngi sant bu baax a baax a baax tur beeg sant bi ak fi ñuy wootee ñu ngi tudd Maguette Ndiaye Maguette Ndiaye sëñ Maguette Ndiaye na ngeen def dëkk Touba Gueye dëkk du ngeen ite yi di wala rew sëñ Basiru moomu dëgg la wallaay wallaay di xaritu sëñ Cheikh kan dëgg la wallaay. leen xamal ni kontaan naa lool. tey kontaan naa ci seen plateau bi. dëgg la wallaay xaaral ñu xool sëñ Mokhtar sëñ Mokhtar. ak sa. allo. allo sëñ allo. allo waaw. waaw na ngeen def. waaw sëñ Mokhtar ana waa kër moom daa mel ni dégguma ko bu baax. waaw waaw. waaw sëñ Mokhtar na ngeen def waaw ñu waaw. ñu ngi sant bu baax. kay. di kontaan ci bis bi. di kontaan it ci ci ci ci jëmm ji ngeen jël. di kontaan it ci waajuram. day sama soppe di sama wëlëre. dëgg la. fi mu nekk nii dama ko dégg dama àllu ba xamatuma sax lu may wax. waaye maa ngi maa ngi leen dégtal ni kontaan naa lool. lu ngeen wax ci sëñ Basiru moomu nag des na. wallaay wallaay. yàgg naa ko teewal mbaaleen. mu war fas wi di ñëw di ram sukk ci kanamu baayam wala li rek fekk maa ngi teew loolu yàgg ay at la kon loolu du ngis tan lu lu am la wóor na ma ni lu wér la li mu wax lépp dëgg la kontaan nañu bu baax jërëjëf jokkoon ak sëñ Cheikh léegi bu wax ko affaire bi xaw ma ndax déglu déglu waxtaan bi wala déet est ce que waaw waaw waaye fii ba Dakar ñu bare may woo bég naa lool ñu ngi koy bàyyi xel bu baax kay ak sa ak sa cheikh ba mbalin ñu ngi déglu rajo bi jërëjëf jërëjëf maa ngi kontaan bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf kontaan na baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf man la Maguette Ndiaye Touba gi jàkkaarloog studio bi caméra yaa ngi ni ñoom nañ lay seetaanee ak sa jërëjëf ah. jërëjëf sëñ bi kontaan nañ waa Touba gi yëpp kontaan nañ ci émission sëñ Maguette jërëjëf jërëjëf sëñ Mokhtar ñëpp kontaan nañu jërëjëf ndax mbaale nag Touba gi maanaam ànd bu la dëgg la mbale nak touba gay mom andu bu yag la andu bu yag la waaw ba legi seigne moussa la ngi jël la mat ah kay aha ah. ñu jëgël wat bu baax baax mo talibé yi siaré sunu ci ñu fekk deug yalla euh lot sax di wax seen kanam waye ndigal mom bu jubé jëfé rek ndax eh, seigne bi day faral di wax ni ndigal mom ciabi la bu uppé du ubbi bu yéssé du ubbi té boko yotané yak kanam wax nga deug waaw kon eh, ndigal mom jëfé rek lañ ci xam hmm. waaw ñoo ngi siyaar bu baax a baax seen Basiru Kan mi nga xam ni moo war a suñu fii mhm. di siyaar oustaz mhm. dëgg yàlla di siyaar suñu maxtaar ak mbokk taal bi mu ñu fekk mhm. rek ah sëñ bi nag eh, yàlla dafa dogal ni maanaam ude moom bu waxee ci deru bëy bi dañ naa bu waxee ci bëy bi naan derbaatex rek waaye eh, moom mënumaa matuma ci moom seede moom it matul ci man seede eh, lu waral loolu mooy dama acca li waral loolu mooy ay ay doomi bàyyi yoo xam ni mm-hmm. maanaam mën naa ne sama wujjur wu góor moo ko yar mm-hmm. ndax wujjur wa mu góor yéex naa nekk ak moom sax mm-hmm. moom suñ basiiru waaye sama wujjur bu góor moo ko yar def ci moom li mu war a def ci moom yépp ba suñ borom dogal ñu gën a jamono a jàng alxuraan mu yóbbu ñu ci daara bu ne na daara bu ne ñu jaar fa waaye mataluñu alxuraan ji mu bàyyi ñu ci loxom mhm. moom sëñ Basiiru mhm. ba falan matale alxuraan ji mhm. ba doon jàngale ca daara ja eh, ba ay yu bari ci Alquran karim ngir jëmam kon loolu defe naa doomu aadama bu la ko defalal rek donte néew ko aslamtu nafsi sax sa sëriñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man allamaka xarfan fa huwa mawlak képp ku la jàngal araf ci Alquran maanaam mooy sa sëriñ mooy sa sang kon kooku maanaam donte néew ko aslamtu nafsi sax sa sëriñ Mm-hmm. yi muy def ci yu baax nag bari na mm-hmm. waaye yi mu def ci sama jëmm ji ak yi mu def ci jëmm suñ suñ maxtaar mi ak ñeneen ñu mel ni waaw li ñu ci mën a seede daal mooy maanaam li xool ci ji koy sang mm-hmm. koo xam ni boo ko gisee war ngaa mën a ànd moom mu jëm mu jëmale ci suñ borom mu ngi ci moom moom suñ basiru ndax ku nangoo jaamu yàlla la ñun ñi dëkk ak moom xam nañ ci daal quatre heures lay jóg ne ci kurusam mm-hmm. wala mu ne ci alxuraan yi mm-hmm. wala mu ne ci xasi xasida yi mm-hmm. yeetu tànk yi ñu jóg jàng alxuraanul karim loolu defe naa ku gëmul yàlla suñu borom wala taqwa billahi newul ci sa xol doo doo mën loolu waaw ku saytaane ne ci yow fajar sax doo ko mën a yow bay jóg quatre heures di yee keneen kon moom jàpp naa ni suñ borom dimbali na ko ci côté boobu ba pare di di def social di dimbali ay doomu aadama yoo xam ne man damay fekkee ndax maa moom ñoo dëkk. Mhm. néegam sama néeg ngay jot doog ko dugg ci néegam. Mhm. ay doomu aadama yoo xam dañuy am ay jafe-jafe. Mhm. am ay euh, seen kër xaw a gëll goose. mu ñëw ñoom ñu ñëw ci moom diisal ko. donte benn benn la fa dese moom. bu war a def ci njëlam. da leen kon loolu. suñu maxtaar mii may wax xam ne. wallaahi dëgg la barke borom Tuubaa <laughs> ñun dañuy soxla sax ñun ñu ay nja ak njabootam. mu xañ ñu jox kenn loolu ji koy sang rek moo ko moo ko mën. loolu laa mën a seede ci sëñ Basiru am naa hmm. li ma ci mën a seede sax bari na hmm. waaye li ma ci mën a wax yëpp bu ma ko waxee du xaj ci émission bi hmm. sëñ Oustaz sëñ Maxtaar euh, ginnaaw sëñ Moutala seede gi nga xam def na ko euh, diggante sëriñ Basiru euh, àllaaqa bi mu am digganteem ak mbokki sëriñ si sëriñ si ak mbokki taalibe yi jëflante gi muy jëflante ñoom parce que man yàggul yàgg na parce que bañ xamee yàgg na waaye duggante gi nii yàggul waaye yëg naa ne lu taalibe am mu bàyyi koog moom lu mu am jox ko loo am mu bàyyi ko yow te nag foo nekk di ko jaamu yàlla koy njabootam dina la dox yi dog dina doxi lii loo mën a dooleel foofu waaw waaw xam nga xam nga xam nga li mu talaa wax léegi waxu olof la wax mhm. béy bu feebare si kër ñëpp mën nañ ko reyloo ba mu des uude bi ndax bu ko reelee dañu naan der bi la soxla maanaam bu waxee sëñ Bassirou Kane rek dañuy naan magama moo tax xam nga xam nga xam nga dafa dañuy wax ne sëriñ sëriñ day tollu fam dañu ne wooye ay sëriñu Mm. sëriñu ndaw mm. comme Mourtala jamono ji ndaw dama jégal ndaw jégal mais ay sëriñu ndaw lañu mm. ñu koy woowee waaw barki maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. am na jamono jox na ay sëriñu ndaw ñu nekkoon fii Thiès rajo lay waxee de maanaam benn événement jot duñu koy wooyee 15 août mm-hmm. ñu ne ku nekk na teg nangam moom bi ñu ñëwee si moom ne nañ teg nangam maanaam exemple nag ku nekk ci ñaari junni. Hmm. maanaam bu guddi jotee ñu toog jataay meew donte ñoom kese ñoo fay toog. Hmm. maanaam sëñ Bassirou dafa génne ñaari junnam joxe. daa leen na nag ngeen jéggal ma su ma rusu sama jëmm ji rusuma samay waajur dina rus yàlla suñu borom yi nga xamante ne mu may fekk si jataayu puukare. Hmm. billaahi wallahi tallahi mhm. eh am na yoo xamante ne dafa joxe participer ba pare amna yo xamantene wa dafa joxe ba pare wax len loolu euh, man man premier man musna yegle ben benn réunion man pour wax la ne sëñ Bassirou dafa fek ñu bon mu defar len ñu bax dama fekke ben réunion man ma annoncé réunion bi daayira daayira vendredi ma annoncé réunion bi ne ko dimanche dañu am réunion. mbokk 88 le 628 37 37 ku bëgg dug ci émission bi 88 628 37 37 bi ma annoncé réunion bi moment bi may annoncé réunion bi man maa ngi programme bi dem sorti mm-hmm. bismillah Assalamualaikum. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sang bi ñu ngi ziar bu baax ñu ngi dellu ziar wax tur bi ak sant bi ak foo ñuy wootee man la Ndiaye maa ngi wootee Medina Ba ah, sëñ Vieux Ndiaye na ngeen dafay tey ñu jox la Cheikh Mokhtar kon macha allah Cheikh Mokhtar waaw sëñ Vieux Cheikh Mokhtar ñu ngi ziar bu yow de boo waxee war ngaa wax boo waxul war ngaa wax kon kon kon waxal Euh, ñu kontaan bu baax a baax a baax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñun dañ leen dab ci jotaay bi sax sama rakk bi moom a envoyé vocal yi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla xamuñu sax luy départ waaye dañ ne mënuñoo ñàkk bañ a dugg. kan mooy sëñ Bassirou Kane vie kuy sëñ Bassirou Kane. sëñ Bassirou Kane de. Mm-hmm. sëñ rek xam naa ne fa laa yëkkatee. muy sëñ war alxuraan nuurulaay. moom day alxuraan ak diine rek lañ xam ci moom. ak dimbali. jam ni comme ni ko sëñ Moutala hmm bokku na ci limi ñun ñi nga xamne ni ñom ñoy ay wa kërëm sax mhm. oh. jërëjëf sëñ bi ndeysaan fu mu don fu mu doon ñëw yéeme 88 628 euh, lu mu la wax si jaam la bëgg doon mus mhm. nañoo ayee daayra mhm. bi damay sa wax waaw da nga ne lan loolu dañ ci dañ koo xeex fu ñu musaan ay dayra mhm. dañuy ñëw yàq day dañuy ñëw jéem a yàq dayra bi mhm. ñu ñi nga xamante ne ñun la yàlla mayoon yàq mhm. bu ñuy def dayra ñun ñooy solu civil dañuy bañ a solu de yëre dayra solu civil maanaam encadré encadré dayra bi di dugg si kër yi di loqati ñiy sànni xeer am na koo xamante ne bés dafa ñëw ba tiim sëñ bi daal di yëkkati dal di addu benn kàddu benn taalibe bu ñuy wax Lamine Jogoy daal ne Hmm. sëñ bi ne ko nit ne ko boo fayoo yaa ma yaa ma ko wax hmm. yaakaar naa xam ngeen li ma bëgg a wax baat bu mu baat dafa am baat bu mu wax hmm. ëpp na ëpp na waaw baat bi teg newul Lamine bu ne ko boo fayoo yaa yow ma ko wax soo ko dóoree mën nga dóor wala lii dal ne xanaa dangaa fàtte Seydina Mohamed bi ñuy dem ko ñëw sallallahu alayhi wa sallam waaye billahi wallahi tallahi ki de ki defoon loolu. Hmm. mu ko dama ko ràññee xam ne hmm. tey moo gën a bëgg sëñ Bassirou Kane sa waa kër sëñ Bassirou Kane. waaw hmm. moom xam naa ñoom ñoom ñoom ñoom ñun xamante nañ suñu biir. pour wan la rek ne la pour wan la rek. sëñ Bassirou Kane boo ñëwee si moom ne ko aslamtu si baat bu mu lay njëkk a wax mooy lépp loo liggéey dama jox say waajur. lu ma liggéey soo ñëwee ñu bokkoo. nee naa la ñu bëri man maa leen di man maa leen di waxal. après dala ci tegal ne. looy mën a def ak foo mën a ne su ma la ci hmm. fekkee nga am ci gàcce hmm. say waajur bu la ci fekkee nga am ci gàcce hmm. yàlla suñu borom fekkee na ko yëg na ko may danga nga koo yëgul ba xam ne war nga ci am gàcce loolu du ndigal waaye loo xamante ne boo koy def su ma la ci gisee nga am ci mbégte wala ko baax ku la ci fekk nga am ci mbégte def ko ndigal la moom sëñ Bassirou Kane sëñ Bassirou Kane taalibeem bu feebaree moo koy faj Mhm. foofu dama koy eko tuuti dinaa ñëw sama jëm bopp man sama jëm bopp mhm. taalibeem bu feebaree moo koy faj mhm. dëgg la taalibeem buy buy wuti soxna moo koy wutali taalibeem buy ngentee hmm? li ci ëpp man man wallahi hmm. yóbbul naa ñu bari saaku ceeb xar ak hmm. fukki junni mën naa ngente wallahi bu ñu ne suba la ngente li ma téye xar mi ak saaku ceeb ak fukki junni bokkut ak moom nag bu ñëwee lu mm-hmm. mu lay jox jamono la woon mm-hmm. léegi sa augmenté na xam nga xam nga su ma demee lu mu lu may wax loo mm-hmm. soo demee nga ne ko sa mbokk taalibe yi ñoo dajale lii jox la sëñ bi neena na bu subaa bu ñëwee di ngeen gisante xoolal ma lii rek dafa dafa ay nit bataay sëñ bi man mii di wax ak yow ndog damaa fekk ma damm lu ñuy wax du tubaab di wax tànk bi damm ba nga xamante ne cat bii double fracture waaw double fracture tànk baa ngi nii leer na waaw loolu de. Mhm. moo ma tee moo ma tee doxee beeke. Uh-huh. moo ma tee la fañ. moom sëñ Bassirou Kane. Hmm? premier jour bi ñu ma dugalee hôpital régional huit heures ci guddi ba deux heures du matin. Hmm? ba mu ñëwee caabi otom la njëkk a teg. Hmm? ndax dañu ne man baadoola laa kaw kaw laa mënumaa fay loolu caabi otom la njëkk teg oto boobu mu ngi doon jar cinquante millions. waaw taatine mu daa mel ci kaw ga la moom. waaw ba taatine ba mar ci kaw ga la de. Uh-huh. barke Serigne uh-huh. Touba li ngeen ma laaj ba sama oto bi hmm. ba sama kër gi hmm. te jëmm ji baña doxé lago hmm. yaral jaral na ma est-ce que guddi googu mu ngi génne 1 million quinze mille francs ci benn goudi est-ce que bu ma demee ba ba xaw man ko wa sëñ bi li nga def loolu mu la jaral mu né bi ngay jëbal ci ma loo ma man ko dama la néwon woon na sama bop aduna ak alakhirah mu né ma su la mënul dara ci aduna lo may xari alakhirah way way deug la way kan waay kan deug la kan way muy ben ñaaral ba mu né ma sa téléphone bi lu muy jar ma ko téléphone bi yaakaar naa douze mille lay jar mhm. mu ne bu batterie bi yàquwoon léegi la nga koy sànni mu ne ma déedéet da ngay dem jëndi batterie bu bees mu ne ma pour lan pour mu dox mu ne ma li nga may doxal moo ëpp njëriñ batterie bi si portable bi allah akbar est-ce que saaxibul quraan Qur'an ngi ni kooku mooy sëñ Bassirou kan. maanaam sëñ Moutala daal la wax sànq ne en tout cas bu njabootam soxlaa njabootu jàmbur soxla nga ñàkk am na benn jour dama toog ak yeneen ñaari mbokk taalibe amul sax amul kii man ak am di rabbi cuun ak taala ñoo toogoon sëñ bi daal di génne ñetti grand bu bi rafet wallahi hmm? mu yëkkati benn grand bu bi jox ko taala est-ce que est-ce que yëkkati benn grand bu bi jox am di mu des benn grand bu hmm. may sama xol bu commencé naa gundaan naa hmm. mu toog ba mu yàgg mu jóg dugal mu jóg dugal dugal dugal dugal grand bu bi si biir ma xaw a séngeem ñooñu dem mu ne ma sëñ Massamba sa xel dafa nekkoon si grand bu bi ma ne ko ah mu ne ma yow aw lu ma lay may kër gi mayu ma la saraxu la loo fi jëndul doo ko fi am allahu akbar mu ne ma yàlla suñu borom dafa ne jaamam bu ko liggéey donte benn pepp suuf la dinaa ko fay dina mu ne ma ñii dañ maa liggéeyatu dañuy dem mm-hmm. te bëgg naa leen fay balaa ñoo dem parce mm-hmm. que bëgg naa amee leen waaye bëgguñ bëggu ma bëggu ma ñu amee ma mu ne ma yow nag awma lu ma lay may loo fi liggéeyul doo ko fi am mm-hmm. oh. moo tax jour bu mu toogee di ma seexal ump na ñu bëri ndax dafa am baat bu mu waxoon dafa ne woon sama soxla yaa ci gaaw sama poos yaa ci gaaw sama mbir yaa ci gaaw xam nga boo nekkee si jotaay te gisuñu nga koy jox mhm. gisuñu ngeen di joxante mu ne la yaa gaaw si lii dalay day yéem ñu bëri mhm. ñu bëri kooku mooy sëñ Bassirou Kane sëñ Bassirou Kane dafa nekk jëmm joo xamante ne maanaam man de mosumaa gis dinaa xam ne mu du jaxle dina nekk si njàkkare nag mhm. saa yoo ko fekkee jébi di ñàkk di siit maanaam xamal ne am na soxla jàmbur joo xamante ne ko bëgg a faj fajugu nga ko de saa yoo ko fekkee jébi di ñàkk muy siit xamal ne am na soxla jàmbur ju mu bëgg a faj mu téye ñëw. mandarga ma de. barki Cheikh Ibra soxlay boo xam jaaxalu ko mbiri boo xam jaaxalu ko mus na mu mus naa ñëw si moom xaw a sëngam mu ne ma xanaa dafa a dem ah, hmm. ma ne ko dama tey dañoo am soirée. Hmm. mu ne ñaata la paas bi ñaata la. ma ne ko paas bi de mille la ak paas taxi aller retour 500 500 mille francs boisson téeméer li ma kàgg la lépp ba muy 5000 mu jox ma 7000. ma dem si soirée ba bët set ma ñëwaat si këram mu ne ma naka soirée bi neexoon na. mu ne ko ah kay neex na mu ma ne ma ma boo jëndoon ñeent téeméeri yàpp lekk ba suur tëdd nelaw xëy jox junni bi sa yaay mu ñaanal la ndax gënul woon. Hmm. billaahi wallaahi tallaay jour boobu laa ne sama tànk dootu tekkati soirée ba tey jii ma lay wax ni c'était en 2005. barakal mbokk yi 88 la 628 37 37 boo ko defee ñu bàyyi sëñ Matar mu sifle ma am lu ma ma daal waaw sëñ Bassirou Kane mu ngi judd le avril. Uh-huh. maa ngi jokk si moom le 12 avril. mu ngi hmm. ma seexal le 12 avril. Hmm? do hasard de du hasard de <laughs> kooku sëñ bi moom dinaa ko lijjante ak moom du hasard 88 <laughs> la 628 37 37 ñu jox sëriñ Moutala mu léemu waat jotaay bi fa tabarakallah euh, bàkkal ñu yoon yàlla kañal ñu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam walam tazal ya malikin sukura walam tasal yaa malikin sakora akramani ikrama man masafal fa kullu ma arata min kan faal ataytani ya rabbi min ladunka zikran hakiman faraditu anka بارك لي يا ربي في الغراف وغيرها وجدت بالمعروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تبشيرا وتكريما أتيتني ما خلب أنسى كل ما مدى من الدر ما تظلم أفاني من ما كفنا بما لخير ساخ كل من جات أكرمني بقل هو الله ربي ولم يكن له كفا أحد نجاني الله مكرم السمت تناجيا بي كفاني الكمت وجعل الأكرام أنفع الكرم ودرري بخير رد لي للشرم كون كونتي قصيدة خارمة لعادتي مفيدة يا يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بعصر الكلام على الذي جاء بعصر الكلام سلم وسلم وتقبل الكلام الكلام منادى خارع الوروف بما يفوق الزن من معروف من على خارع الوروف بما يفوق الزن من معروف لناصم وروف خالد رباه يا من كفاه الخرور والنباح وليو يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك خدي موسى سلام مسلما على موسى شيوخ غلام ناجاك عبدك خدي موسى سلام مسلما على مزازون خلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والامر لله رب العالمين بارك بروم توبا جريجف سيرن متلا سنيابي إيه، فتبارك الله دي كو خامتيني ما شاء الله جامبار لا لول لي ماي واخ خالي ني لين خامولين سيغ بشير سيغ بشير دا نغي فك مو بايي ndax jamono ya ma koy xam boobu beneen onde la woon man leen da ngeen a fekk mu bàyyi ya. xam nga si der mu jamono da ngeen a fekk mu bàyyi fa tabaarakalla mu di nit koo xamante ni weer wi bu teeroo fa tabaarakalla ah sëñ Basiir jàmmam jeex na ci waxin maanaam ndax mu ngi bis boo xamante si biir koor gi chaque année ñu ngi koy waajal te sëñ euh, Maxtaar dina si ñëw te di bis boo xamante ne xam nga ndogu rek ni ko bàyyi faal fonkee fa tabaarakalla ñu ngi koy bis boobu ban taxawaay ngeen ndeysaan eh, yaa ngi may fàttali wayu xale bi. ah jëlal ki ci ki ci ligne bi. Mhm. Eh, kooku di fëgg mbokk asalaamaaleykum. aha ah. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. allo dafa mel déggante bi neexul nag. 88 la 628 mu def 37 37 88 628 37 37 sëñ Moxtaar. ndeysaan yaa ngi may fàttali wayu xale yi. Ah, ah. bes bobu jotee bañu ñu xewlu ba paré bay yuux yi jëp bay basiru kan sa bay fali yi nañu. wallay bay basiru kan sa bay fali yi nañu. bay basiru kan sa bay faal béggati nañoo faal. barke sëriñ bi borom jam bi ilaha illa illallah. bismillah ma ngi dor ndaysan ci turu yalla mi mom ndeysaan alxamdulillaahi borom te moonu waate àdduna bismillaahi maa ngi dooru ci turu yàlla mi nu moom alxamdulillaahi borom te moonu waate àdduna ci àdduna seydina aliya jàmbar jàngoog ba mu demee fekki si ma far ja moom jandeer liggéey fa liggéey bu rëy ma wal yoo def tarbiya ñu naa ko yow de nga te yàlla mi gërëm na la yeneen ba gërëm na la ma bamba mi gërëm na la Cheikh Ibra sant na la wa saabixoona saabixoon yàllaay borom kun fa yakoon moo fi jëloon mamal yoo jàmbaari diina wàcc na mamal yoo badara danaa la way file dara te duma ci bàyyi dara dara jàmbaari diina wàcc na ma walliyoo ba daraay maami sëriñ Basiiroo borom daaru kan jàmbaari diina wàcc na li ma xam ci moom lu bari la amaana sax lu tuuti la waaye ma dëxëñ te noppi mama liyaada wàcc naay jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Mursala ci am daax yu am solo yoyu nga xamanteni waxtu yi li des bareetul mhm. tul, wara wajal nang waajal nag ndogu yi nga mhm. xamanteni Serigne Bachir chaque année da koy wajal mhm. waye jëm nak dekk bu mag beul nga xam moy mbalen chaque année taxaway yi ndax ma ngi gisse ndongo yi bi may jóge sa dara ji kenn ko na ya nga wajal xol fo ngir préparer bis di bis bo xam bis bu mag la euh, euh, bis lan moy sabab bi yanu ndogu yi di yobbu euh, fa tabarakallah waaw jërëjëf xam nga serigne Bassirou kan lépp lu muy liggéeyal yàlla rek. Mm-hmm. da ciy bëgg a boole njabootam. 88 la de 628 37 37. lépp lu muy liggéey rek da ciy bëgg a boole njabootam. ndax kenn ku ci nekk xam ne bu weer koo jotee. Mm-hmm. war ngaa yëkkati benn addiya. Mm-hmm. maanaam jégleel ko sa sa wasila. maanaam muy sa sa sa sa diggante ak moom. maanaam nit yaa ngi koy def ci zaayir bi di di di joxe seen coro yi ay sukkur koor. di joxe seen goro yi ay sukkur koor. waaw donte nekkul loo xamante ne. naam bismillah. bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk na ngeen def. ñu ngi ziar ñu ngi ziar bu baax a baax. tur beeg sant bi ak fay wootee. Amadou Fall la Amadou Fatou eh. Faten Bambara. <laughs> Amadou Fall ayoo kon ñu bàyyi la Cheikh ah, sama rakk la a baax. vraiment sama mag la sama sëriñ la sama papa la sama lépp la. waaw mhm. ah, vraiment ñu ngi yokk di ko ñaanal ñun waa Taten Bambara. ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp bu baax a baax. vraiment taxaw na waa Taten Bambara taxaw boo xamante ne moom. Mhm. vraiment fu sëñ Bas waroon a teg tànkam yëpp teg na ko fa teg ci taateen bambara. ndeysaan ndeysaan ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla yokk wéram. amiin amiin amiin yàlla yokk kattanam. amiin mu bëgg lu mu bëgg ci yoon bi mu mun ko cee am. amiin amiin amiin amiin. ah sëñ sëñ bi nag. vraiment ñu ngi koy ñaanal moom tamit gudd fan ak wér ak wér le. soo gisee ba. doomu taateen bambara di dem ci rajo di wax wala bërëb bërëb ci jàmm mm-hmm. jëmm ji jëmm jëmm sëñ sëñ bas la mm-hmm, mm-hmm, sëñ bas vraiment amuñu sa fay amuñu sa fay jërëjëf jërëjëf am yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay ak sëriñ Touba amiin amiin amiin Xaadim Rasul amiin amiin vraiment émission bi kontaan naa ci bëgg naa ci eh, jërëjëf sëñ Amadou nuyul eh. ma sama sëriñ bi Talla eh, Talla mu Talla mu ngi fi toog mu Talla maa ngi lay ziar bu baax a baax Talla yow tamit vraiment maa ngi ziar bu baax a baax gën nañ gise loolu sax mais maa ngi jégalu bu wér a wér maa ngi jégalu bu wér a wér vraiment maa ngi kontaan naa lool kontaan naa sama xol daa sedd ba mënuma wax am nga waaw am nga sama jëwriñ bi da koy faral di waa xalifa euh, mm-hmm. nee na bambara su demee bay wax olof lu mu ci wax rek daa mm-hmm. góorgóorlu mm-hmm. waaw li ma bëgg a wax lépp vraiment mu ngi ci xel bi mais làmmiñ bi ak xol bi munu instant bi ni moom mooy loolu quoi jërëjëf waaw kii ni ma mel ci sëñ Bassirou Kane. la mel ci man. sama taalibe la sama doom la sama rakk la sama xarit la moom Amadou Fall mi wax dëgg yàlla eh, jàmbaar la lool moom it si yoonu si yoonu sëñ Tuubaa bi maanaam jàmbaar la lool lool lool lool eh, macha allah maanaam eh, sëñ Bassirou buy def lu baax da cee bëgg njabootam yëpp ne ci maanaam kon li ma waxoon rek. Uh-huh. moom mënoon na su jógee moom kese. mu jël addiyam dem jëbal ko sëriñam wallaay wax nga dëgg waaye day day jiital moom bosam hmm. da koy jiital ba pare hmm. soog a ñëw woote waat ndax nee naa la sànq ndax damay bañ wax yi woroo dëgg la nee woon naa la sànq ne sëñ Bassirou Ka nee na lu nit liggéey demal jox ko say waajur hmm. waaye nee na nag loo ma jox ngir sëñ Touba ma joxal la ko sëñ Touba sëñ Bassirou Ka mooy wax loolu de noonu la ma na pour seede wax la dëgg uh-huh. dan ma kees gaa ngi ne lu ñu ma jox pour lépp loo xam nag lii moom sama alal bopp la boo mm, mm. dikkee mën naa yow waaye la nga ma jox pour sëñ Tuubaa mm. du ko jox damaa dem si kees gi a jëm waaw liggéey sëñ Tuubaa maanaam moom loolu mooy loolu mooy mooy jëfam ah. léegi si biir loolu nag bu nekkee dañ parce que man maa ngi ànd ak sëñ bi le 12 avril 2005 le 12 avril 2005 ba léegi maanaam addi euh, euh, sukaru koor yi bu nekkee fukki yoon la lañ ko yóbbu maa ko yóbbu juróom-ñaari yoon maanaam li ma bëgg a wax ne yi ma ko yóbbu maanaam oh. lu lu lu néew la mm-hmm. xam naa ci xam naa ci dara da ci boole ay bernde boole ci ay xéwal yu bëri bëri boole ci suukar gu takkoo takkoo takku maanaam tey bu ñu ko joxoon 40 kilos suukar exemple maanaam dina da koy bàyyi foofu dem jënd cinquante kilos yóbbu ko ndax ndax du yóbbu lu cate yaa ngi dégg moom mooy sëñ Bassirou Kane euh, mm-hmm. maanaam am na ndongoom boo xamante ne bay isma tamit si weeru koor bi aussi moom dina ko indil ndogu ndogu boo xamante ne ndeysaan tamit ndogu bay fall la maanaam Souleymane Touré aussi ndeysaan mm-hmm. jàmbaaram jooju tamit maanaam si biir weeru koor bi tamit da indil tamit li nga xamante ne moom mooy ay xéewal xéewal yooyu nag bu ko dajalee mooy mooy mooy euh, Baye Makhtar mu am ñaar dërëmam. Mhm. talaa mu am junneem. Mhm. Euh, euh, Baye Moussa waddeen bi moom tàndarmay bu ñu ko joxee juróom. Mhm. muy lekk ñetti. indi yóbbu yóbbu yóbbu ñaari. moo de waaye tàndarma moom duma ko fanaan. yóbbu yóbbu ñaari loo am si tàndarma jox ma yóbbu ñaari. <laughs> maanaam yooyu lay dajale. Uh-huh. yooyu lay dajale nag taaral ko nag. Mm-hmm. taaral ko ba mu rafet. su ma la taaral ko maanaam bu ñu ko yóbbalee kilifa gi rek mm-hmm. maanaam dina xam ne xéewal maanaam ñëw na maanaam kooku mooy sëñ Bassirou Kane bu ko mm-hmm. defee dañ koy yóbbu buñ ko yóbbee aussi lépp luy ñam li hmm. maanaam mbaaleen kenn du ko fa miim hmm. amul ku ko fay miim kër gu fa nekk hmm. waxuma kër kaneen de waxuma la kër kaneen de kër gu fa ne ndab nu mu tuuti tuuti tuuti dina fa dugg que waaw même bu nekkee benn pooju ginaar lañ ci teg dina fa dugg suukar si nag maanaam kilifa gi la koy jox. Mhm. kilifa gi kilifa gi mooy mooy mooy mooy xam ban yoon la koy jaarale. ba mu nekk mhm. loo xamante ne maanaam lu lu yëwén lay doon. loolu sukari mhm. koor yi la kon euh, ñu ngi ñu ngi wax ak ñëpp nag. maanaam euh, wax saxaatatu murid na yëpp nañ ko waajal. ndax euh, ni ñu ko doon defee rek fañ ko doon defee si waxtu bu ñu ko doon defee. man noonu lay demee. li ci ëpp tamit si jamonoy yi si jamono ñaar fukki fan koor tombeek maam Cheikh Ibrahima Fall njëbbalam maam Sera Fall ak li nga xamante ne mooy mooy sëñ ah, moom lay tombeel moom lu ci ëpp moom lay tombeel ah, non dañuy jiitu jiitu kilifa gi waaye lu ci ëpp waaw waaw lu ci ëpp waaw <laughs> waaw wax nga dëgg dégg naa la waaw ah. <laughs> waaw waaw kon kon kon kon sëñ bi kon mu ngi noonu sëñ bi waxuma ko sëñ sëñ bi ko wax sëñ bi wax waa li ci ëpp daal ci ci la doon ci mhm. mu ngi mel ni euh, maanaam lu lu lu lu lu ëpp si lu xëpp euh, lu lu duuf si nag li waaw dafa mel ne xam ñu li nag <laughs> waaye damay damay naan sax olof bokk ñu comprendre rek ba pare la ñu comprendre olof dafaa jum olof dafaa jum foofu ah. maanaam lu lu duuf si ci ci nag li xëj na si cin li dañ ko dañ ko ci war a def Ah. waaw si biir loolu ci waaw dañ ko dañ ko dañ ko war a def askumbala dañ ko war dañ ko si war a def <laughs> askumbala si biir loolu eh, eh. wallaahi nag mm-hmm. am nañu mbégte ah, mm-hmm. damaa bañoon euh, yàq émission bi mm-hmm. góorgóorlu naa pour rongo ñi bañ a ñëw ndax man mënuma waxtaan si sëñ Bassirou Kane ndax ñaar matul seede ah. sa soppe pire matul seede ndax xëy na ku toog Mm-hmm. te noonu sëñ Bassirou Kane mm-hmm. day wax na yu baaxam lañ koy wax xëy na nëbbal nañ koy ayibam mm-hmm. waaye wallaahi xamuñu luñ ko ayib man de benn ayib laa xamal sëñ Bassirou Kane mooy bëggul ku bon est-ce que ku bon ku ne bëgg na nga baax loolu daal laa xam ne mooy ayibam beneen bi aussi sa noon dégg matu la seere ndax day nëbbu sa yu baax di la waxal sa yu baax kon loolu moo ñu dal si sëñ Bassirou Kane waxtaane ko nag waxtaane ko li ñëpp wax la naan bu yokk mar la sëñ Bassirou Kane kese sëñ Bassirou rek sëñ Bassirou kan dong hmm. ba faw hmm. keneen nag xamewuma ci ku ci ba ku ci ku ci mag hmm. ak ku ci ndaw waaye sëñ Bassirou Kane mooy sama féetoo fu mu dëkk ëllëg yàlla naa fa dëkk barke Cheikh Ibra fi sëñ Bassirou Kane dëkk ëllëg yàlla naa fa dëkk am na benn bés euh, dafa am coow bu ndaw bu génnoon ma xaw a jaaxle mu woo ma si biir néeg bi dal na ma Cheikh Matar mu ne ma naa mu ne ma billaahi wallaahi tallaahi kamil baangi ni ma tek sama loxo bi ma sama ndek sama bay musuma def lu naqar yàlla te ba keroog may fatu duma ma def lu naqar yàlla dalal sa xel doxal te wéy mu ne ma nag di nga ko dégg si Basiru lepp di nga ko dégg si Basiru ba mu dess ëmb parce que góor la motax tax yalla yo li Seydina mohammed amul mam Aliou kan amuko mam seigne cheikh amuko man Basiru mi bëgguma kon fofu lay le sama kaddu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi kàddoom ko mu def kaddu ngum noo ngi ñaanal ñëpp jàmm rek tawfiq ak tayshir waaw di kontaan bu baax nag ci invitation bi ngeen xam uh-huh. moom ngeen ñu invité tey ñun uh-huh. la dëgg la yaay suñu xol sedd na ci lool uh-huh, waaw mbégte nag baytala maa ngi jégalu maa ngi jégalu baal ma maa bu baax a baax la bi may ñëw sëñ musaa Lay borom borom taxi borom kalandoo moo ma jëlee sama kër indi ma bu fi wàcce ma ne wallahi xaw ma woon rajo bi dama ko laaj mu ne ma moom lay déglu nii te maa ngi lay déglu waaw sëñ musaa Lay sëñ Moussa lay maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm ak salaam jërëjëf waaw sëñ Maxtaar di sant bu baax bu baax sëñ Moussa mi nga xam ne oustaz ndeysaan ak yaa oustaz bi ñu Mouhamed Seck Mouhamed Abib ñoo ngi koy ziar bu baax a baax te di la ñaanal jàmm borom émission bi waaw dama ko séenir rek waaw waaw moom boo gisee rek xam ne ku sell la dëgg la rek yéen a baax rek yéen a baax yéen daara foo gis nitu daara dëgg la dëgg la yéen a baax waaw waaw loolu ñaanal jàmm institut di jàngal tam si institut Serigne Abdou Khadre Mbacké ñun moom mhm. wax dëgg yàlla ñun waa kër Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasul la mhm. ñun lépp lu nu am rek Serigne Touba mënu ko gënal mhm. moo tax bu nu gisee nga nga sax ci njub rek te ñun ñu bëgg ak njub dañuy neex lool dëgg la dëgg la kon ñoo ngi sant bu baax a baax sëñ Moussa mi mooy jàngal gone yi alxuraanul karim ca daara ja wax dëgg yàlla ñun la koy defal ndax ñun ñi ko doon def ba mënatuñ ko ñàkk jot lool mu dul téyel ñu tu tànk yi foofu yàlla xam na ko borom Touba bu nu amoon ni ay milliards ak dañ ko koy jox Hmm. ndax suñu xol sedd lool ci jàngale alxuraan bi muy jàngal tutànki foofu dëgg la dëgg la di ñaanal sëñ Basiru kan yàlla na fi yàgg lool ci ah, di ñaanal riñ Cheikh kan di hmm. ñaanal sëriñ Mor kan mi nga xam ne mooy xalifa Mbaline hmm. yàlla na suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ci ah. barke borom Touba ah. di ñaanal sama ah, mbokki taalibe yi may bokkal di liggéey foofee ca raay ba wax dëgg yàlla suñu isma ara jakat ñoom waa xaal yaag yooyu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen si yàlla waaw ñoom mam ñoom ñoo ñoo ñoo ñoom ñëpp rek ñoom suñu fee ñoom ñëpp ku ñoom ñëpp rek macha allah ñoom ñëpp rek ñëpp rek akay moom akay barakallah fi ko ñu ngi lay nuyu ba xam li daal Cheikh Mokhtar moo dal Cheikh Mouhamed Diouf moo ñëw ba sama kër jël indi ni ma booy wàññeeku nga wax ma ko man ko 17 heures la de baa du ma la sonal mu ma déedéet nag ma waat su may ñëw ñu ko gërëm ak frère ba ak sœur am ba laa bëgg wax ak waa kër euh, Marc Si Abdoul Khadir Mbacke tamit ñu ngi nu di nuyu di leen euh, ziyaara ñoo fi ñëwoon démb rek macha allah euh, xam naa kon. di jox dégg daje tuuti rek poussa tuuti rek daal di ñëwaat incha allah ci as-su'aal wa jawaab ngeen ci ànd ak seen mbokk Moussa Wade incha allah waaw ñi ngi ko waxee rek euh, sëñ Mouhamed Habib euh, sant euh, bu baax suñu gan yu tedd yi nga xam ñu jóge see dëkku leer ba di Daaru Kan fa tabaarakalla di sëriñ Makhtar Mbaye sant bee yàq góor yàlla fa tabaarakalla ànd ak sëriñ Mourtala Kan Mohamed fa tabaarakalla di nabien bu mag sax macha allah ñaana ko suñu borom yàlla na yàlla sàmm ko waaye sant bu baax sang ba Serigne Bachir Kane saaxibul quran nuurullahi ñaane ko suñu borom yal yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko yàlla yàlla kàtt na ko yàlla yàlla dëgëral ko fa tabaarakalla euh, nit ku yiw la nit ku sell la nit ku bëgg ñooñ daara la xam nga doomu aadama moom noo ko téye xam na ko mhm. te man boo nee ma jàkk bët bi nga ma xoole sa sixième mhm. sens ak jëli naa ko fa tabaarakalla dafa bëgg nitu daara dafa bëgg nit ku yiw te dafa ma téye ba ma xam yëg ni téye naa ko sëñ bi fa tabaarakallaa daf ma téye ba mu yëg ñu téye naa fi mu ne lijjantewul daara ji moom yoonam nekku si dan ma man du ma joxe bopp rek ca làmb man sama du sama yéen la jox naa la ko pare naa ca man maa nga fële man daal la nga xamante ni tey ji nit ñi wóol nañ ba ba jox ma seen ndongo Moussa dénk naa la ko mu ngi noonu man ko ñaanal ma yàlla yaakaar ba ñu am si yow yàlla moom yàggi ko sëñ du sin diggante bu néew dinaa jox résultat yu bari incha allah macha moom laa la ñaan ñaanal ma rek fa tabaarakàlla li waral loolu nag lépp mooy mooy yéen yéen a ma bëggal ma seen bopp yéen a ma bëggal ma seen bopp moo tax yal yàlla sàmm leen fa tabaarakal noonu nañu sante seen bàyyi suñ maaraakan moom ñaanal ko suñu borom bu baax nit ku baax nit ku sell nit ku yiw di suñu magu daara doon jëmm joo xamante jëmm ju sell la ñu ñaanal ko suñu borom noonu nañu ñaanal suñu xaadim moom it ndaw la waaye ñu ñaanal ko suñu borom fatabar suñu xaadim kan yal yàlla taxawu ko borom mu sante fa la di koo xamante ni yàlla rek ko ñor fa tabaarakalla Cheikh Rafa la ko ñor daaru ñóoru ko nag lu dul fa tabaarakalla maam jo sëriñ Aline Kane Mbaline yal na yàlla taxawu sàmm ko aar kon daal mbokk yi fa tabaarakalla ni ko sëñ Abib waxee mu ngi noonu lii nañ leen indiloon seen eh, jotaayu daara yi tey ñu demoon ba mbaaleen waaye seet kenn si setu Serigne Aline Kane góor yàlla di Serigne Bachir kan boroom Daaru Kane ñu wax dem ba Daaru kan waaye fa tabaarakalla xool ay qualité xool waa Daaru Kane ñëmu dëkkal njaboot gi ko yàlla booleel nan la leen taxawoo nan lay jëflanteeg ñoom ndax kii la jox addunaam jox la àllaaxiraam fa tabaarakalla ni ko olof di waxee waaye rikk waaye ku la dig reer bu la joxee añ nag xel war a dal waaye bu la jox bu añ nag ah boo dee nit nag wala kii fa tabaarakalla te nag képp kum mu dégg ëllëg nag fii ne commencé na ko wane kon ñu ñaan ko suñu borom yàlla na yàlla musal ko si ay dina ay ay ay ay làmmiñ si bar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaanal suñu technicien yëpp nga xamante ni Seydina Ousmane moom it fa tabarakallah euh, le roi ñaanal ki nekk si digital bi di mbéytaal xuma caméraman Sen TV mhm. nga xamante fi mu ne nii nga toogee ka toog tëdd këram mu ngi jàkkaarloog yow via Facebook wala mu jaar si YouTube bi jàkkaarloog yow wala mu jaar si Kajoor TV sama sama télé jàkkaarloog ñu nga tëdd seen kër jàkkaarloog yow ku wóote wulin mu ngi tëdd këram di la seetaan fa tabaraka bala nga ko mën a xam si kanam bu ma la joxe lien bi nga xam envoyé leen ko yal nañu yàlla dimbal mbokk yi bu leen toxal seenu déglu eh, fii ak si kanam tuuti ñu bu ngee suñuy gan ñëwaat seen émission eh, suwaal wal jawaab a suwaal wal jawaab di question réponse képp koo xamante ne am nga eh, lu la jaaxal sa wàllu dina nga laaj ko rek fa tabarakallah ñu ànd ko eh, imam Mouhamed Habib Seck suñu sëñ bu mag bi yàlla na yàlla sàmm ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi